nuyu naa leen di leen baalu àq ci tabaski bi ñu jógee ci kàttanu borom bi te di leen baal àq it te duñu tàmbali te waruñu taabal ji ñi fi nekk di wax leen anam yi nga xam ni noonu la ñu tabaskee ba mu des Papis Diaw mi nga xam ne xarmee ko mbëkk xam naa mbokki ngay na mi dana am lu ma leen wax Birima njaay dangeen def. sant Sëriñ Tuubaa tabaski bi nu mu demee. ah waa tabaski moom. ñu sant yàlla rek. xam nga yàlla moom bu la mayee nga fekk ko daaw ñu ren nga fekkaat ko. Mm-hmm. nga jàpp ni am na ñu ko fekkoon daal te ren fekku leen fi. day mm-hmm. sant yàlla te ñaanal ñi fi fekkuloon. Mm-hmm. ñi ñaanal jullit yëpp ñaanal bépp jullit boo xam yaa ngi ci Sénégal ak ci bitim réew. mais xalifa aussi di ñaanal jullit nekk Birmanie yàlla may leen jàmm. tigi parce que métti na trop trop trop parce que tu musulman rek ñu lay noot. bu doon beneen religion la tey àdduna tàkk na. Mm-hmm. parce que musulman lañ. donc moom ma ñaan yàlla àdduna def jàmm ci àdduna bi ku nekk def sa ngëm-ngëm. Mm-hmm. li nga gëm nga doxal ko parce que yàllaa fi nekkal ñëpp yàlla xam bi gën yàlla xam ki gën. Mm-hmm. wax na leen wax démb wax ko barki démb wax ko tey. ku nekk yaa xool li nga gëm nga gëm ko. donc du ñaanal Sénégal gépp du ñaanal kilifa diine yi fi nekk. ci réew mi yàlla may leen ak wér may leen ak gudd fan. ñaan yi ñaan ci réew mi yàlla wàcc wasaare ko ci biir réew mi. di ñaanal sama secteur général Ousmane Tanor Dieng yàlla may ko jàmm ak wér ndax ñoo bokk parti di ñaanal sama responsable syndicat moo di Diouroup yàlla may ko wér ak gudd fan di ñaanal nag le président de tous les sénégalais mak monsieur Macky Sall yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla muccal yàlla na yàlla dox bu muccee li mucc hmm. waaw di bala ak sa doomi Bouba Ndour moo war a balaax Sénégal <laughs> Sénégal a ngi nii man Youssou Bouba Ndour maa ngi maa ngi tooy sax maa ngi maa ngi balaax ko si sama grand frère Youssou Ndour dama ne wax na Sénégal ne Bouba Ndour ñëw demandé wa pardon. ah day na waar de c'est le moment de xaw ma de bari na bari yoo xam ne fu mu dugg àjjana day jafe de i suñu baal ma <laughs> mu am suñu mbéy mi tax ñu koy doo doo seeti mbir ma mais wër taw da yaatu du mën a gis fi nga demandé pardon dès maintenant ma ma hmm. signé say këyit. Bouba salaamaaleykum salaamaaleykum <laughs> nekk baal maa xarit la wàññi dara Birima Ndiaye maa ngi jéggalu di la baalu àq. ah voilà di la baalu àq. léegi baal yàlla boole ñu jéggal. amiin na kaay wax nag wax dëgg yàlla. waaw il faut Sénégal xam ne Bouba Ndour dëgg xuloo bi ñu xuloo dëgg la. Mm. am na yeneen dëgg la. Mm-hmm. léeg sax ñu ñëw fi beneen àjjuma du ma nuyu du ma mm-hmm. mais en dehors de tout ça. Mm-hmm. je signe et je persiste. gisaguma ko gën xool ci réew mi. tigi ku gën a yaatu xool gisaguma ko. Mm. ko gën a baax gisaguma ko. ku am yërmande la ku baax la. gaaw jooy. waaw non waaw jooy na ba tey ndax feebar naa mu jooy. ndax gaaw jooy de. feebar naa mu ñëw sama kër di jooy. Hmm. mais na xuloo bu ñuy yàlla bokkuñ fu ñu farma rek la mais <laughs> ku baax la. ah mais mais man bokkuñu fu ñu far parce que man faruma fenn. ah ah déedéet. ku neutre amul ci réew mi nga ni ku neutre amul ci réew mi. waaw man damaa neutre de. ah amul man damaa neutre faruñu fenn yow fi nga far moom ñëpp xam nañ ko mais man faruma fenn bon di ko di la baalu àq ah. yi ak ñi ñuy seetaan télé bi yëpp. dëgg yàlla euh, di baalu ak ñi ma bokkal plateau bi di wax aussi que ñi ngi euh, ñi ngi xalaat aussi papis. Hmm. Euh, xar mi ko mbëkk waaw xar hmm. ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy xaar avec impatience. Hmm. di di wax que ni bon tabaski nañu ci jàmm tabaski moom dafay neex parce que njaboot gi yëpp. ñooy daje kër ga. ñu ñu ñu célébrer ko. Mm. Euh, am di jàmm yi aussi nga woo leen baalu leen àq. je pense que loolu lu am solo ci réew mi. Mm. remettre compteur yi à zéro. Mm-hmm. bu ñu bu ñu bu ñu tooñee ak bi yëpp. ah bu ñu ñëwee ñu baalu àq. Mm-hmm. nit ñi après ñu dafa mel ni àq yooyu dem na ñu commencé waat relation. yeneen i àq loolu dafa naa loolu baax man mm-hmm. sama philosophie boog loolu la. man biir sabat su ma la nee baal baal ma àq. nga ne ma baal naa la ma jël loolu lépp lu nga xam ni. ay divergence la woon suñu diggante. ma mm. teg ko ne fas ne aussi ax yi ma la yoreel déwén. Mm. mu wàññeeku par rapport ak ax yi ma la. très bien kon mbir ma pareel yeneen ax ngi ñëw <laughs> Charles alors. waaw euh, jërëjëf Khalifa ah xanaa di commencé di leen baalu ax ak yéen di baalu ax Sénégalais yi Sénégalais yëpp. Euh, di xalaat suñu xarit Papis. di baalu ak waa Ngaye Mexe du nuyu suma xarit euh, Mor Diagne di ne nag tabaski bi neexoon na lool wante dafa am benn fausse note boo xamante ne mooy suñu suñu lion yooyu hmm. ñoo yàq lépp dagg sumay tànk sumay loxo su sumay la ba may ñibbi xaw ma yoon ba sax hmm. sam da nga demoon stade waaye yow am na ku ma téye yóbbu ma stat man xaw ma 2008 laa gëj a seetaan lion yi hmm. ma koy ne match ni laa fay am xam nga sonal ma dem stat xaw naa dem allah àllaaxira xol bi jaar na fii xëtër euh, bi jaar ni mais y' a mais y' a une nouvelle chance. Euh, contre l'Afrique du Sud ça va aller. waaw man daal félicitations aux Lions ak yi di basket war na ñu fi dëgg léegi nag wax na dëgg. il y a quand même neuf points trois matchs mooy neuf points. ñu wax ko gars yi parce que defe naa arithmétique ay ñu si noonu. Hmm. trois matchs mooy trois points trois points trois points muy neuf bu ñu amul neuf points yi. nañ ut 7 points parce que bu ñu ko tegee si kaw 12 yi dañuy qualifier coupe du mm, monde mm, mm. am na ñoo xamante ne nag calcul war nañ ko jël seen calculatrice parce que xaw nañ dëgër bopp tuuti ñu xam bu buñ bëggee dem coupe du monde te sénégalais yaa ngi koy xaar yàlla mel na yàlla daf ñu joxaat mbir bi xam nga koo xamante ne ñii deux matchs moo leen desee ñun ñu am trois matchs buñ demul coupe du monde mbaam moom daal dina metti si ñun ñëpp rek di ñaan pour que ñu dem ko du monde te mu jig ju aussi parce que il faut mu jig il faut que mu jig amiin amiin alors Abdoulaye Khalifa Diakhaté ñu ngi lay je sais pas je sais pas par où commencer mais je sais que am na ñu la jot a xam euh, parce que bu ñu nee bismillah foog naa ne ñëpp xam nañ ko ah wala boog ñi nga xamante ne nii ñoo gën a féete mag parce que à l'époque de Sud FM euh, revue de presse yaa tax nit ñi bëgg ko ba bi ngay ñëw RFM après la mel ni mu mel rek waaye bisimila moom ñëpp xam nañ. kan moo ko fi indi ak anam yi nga xamante ni noonu la ko xale yi doon defee ba nëgër ni nga bàyyi ko fi ñëwaat fekkaat ko fi xëy na am na xalaat boo si am dina si tuuti xëy na ñu wax si mais li ëpp solo mooy ñibbisiwaat nga si kër gi jàmbaar dawal dafa wuti doole en tant que grand reporter chargé de la prospective au niveau de GFM salaamaaleykum wa rahmatullah ñaari xar nga lay si ji waaye man bittuma ndax ka sant système moom aw lekk rek la la jënti dañ koy yaatal rek moo tax yaatal ko yaatal ci ñëpp xam naa ne loolu rek a tax ma njëkkee nag ci Charles dafa ne 2008 la gëjoon stade mhm. xam nga fi mu toll nii dañoo soxla ay points oui comme ñëw na benn point lañ jël naa mu demati fii ak ci campagne bi jeex Charles. xam nga très bien am nañu chance pour waat sax suñu match contre Afrique du Sud. baal nañu la waaw. Hmm. tooga rek di chronique euh, sur euh, voilà si réseau yeeg yooyu. baal nañ la stade bi. comme sax daf lay xatal. Hmm. jéggal dañ la parce que dañoo soxla point. fi mu toll nii moom. <laughs> jër na kon la ñu wax kon mat la donc Ablaye Cissé chez toi ndax yaa ngi bokk suñu sant groupe Futur Média. Ah, nëgër nii. Euh, nëgët nii wala du sax nëgët nii ndax ay 4 heures du matin la woon muy guddik euh, samedi jàpp dimanche la benn élève tëbee deuxième étage wadd si suuf naan allahu akbar ba ñaari loxo yi damm mu ngi tëbee ca camp Dial di xale bu at mi bees ci école ba nga xam ni fa la ñuy former médecin militaires yi nee nañu nag la tax xale bi tëb mooy bizutage bi moom metti woon ak traitement yi mu mujj pété câble daal di tëb waaye yàlla def daal na si def sutura mujj la faatu. waaye am na ay damma-damma si loxo yi ba jamono ji mu nga ca euh, hôpital principal atum 1998 la juddu bokk ci xale yi gën a xarañ ci ñi di jàng ci réew mi ndax euh, concours boobu concours bu sélectif la waaye ñu ngi koy ñaanal ca na mu gën a gaawee mu génn ci 3 mois d'indisponibilité yi nga xamante ni am na ko te boobu moytuwulee dana raté sax début année universitaire bi ndax xale yooyu am na cours yoo xamante ni université université la ñu koy defe ji la xamante ni moom moo waraloon mbir mi nag Euh, ña ko def ña ko doon bijouté ña ko doon traité maltraité noonu euh, téye nañ leen foofu ca camp ba li nga xamante ni daal moom moo ci wér mooy euh, gune gi daf dañu waroon a xëy dem Bango waaye laataa loolu tëb na ba daal di siy gaañu muy yoo xamante ne nii xëy na bari na mu ngi commencé bari yu muy am ay bijoutage ba ay loraange di si am ñu xoolaat ko ndax gis nañu ne suñu armée ak li ko wër lépp ñu xarañ lañu ñu xam la ñuy def la waaye loo gis rek am na lu ca mën a rax. ñu gën see bàyyi xel lu mooy loolu am na lu xamante ne nii xew na ci ayu bés bi mooy ki fi la junne diwuyoo wuyoo Kémi Seba ginnaaw gi euh, kilifa yi daal di koy jiiñ ne dafa nar a indi ay lëbëjoo ci réew mi ba ñu daal di koy delloo tugal nga xamante ni fa la juddoo te it bokk ci aw askanam réew réewum benee loolu it am ñu si uute xalaat loolu la ñuy tàmbalee waxtaan wi fileek euh, ñuy xaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi desandi muy professeur ak suñu invité bi nga xamante ne dañu xaw am problème tuuti ci circulation bi kon mbirum euh, Kémi Seba euh, Bouba Ndour loo si xam. waaw Khalifa <clears throat> en fait man euh, Kémi Seba c'est vrai que man musuma ko rencontré ah. Hmm. j'ai rek mi ngi woon Sénégal. oui et il était assez actif. bon sur le principe jël quand xaalis lakk ko ci ngëm-ngëm parce que ñun aussi ay ay doomu jullit lañu peut-être mun nañ ci am appréciation. Hmm. boobu. mais euh, du nit bu ma xam donc amuma lu bëri lu ma xam ci moom. mais le message expulsion bi surtout moom moo. indi controverse waaw mais mais le message. Mm-hmm. message bi muy porte mm-hmm. je pense que message boo xam ne la que ñu wax ko ci kaw que ñu bañ ko wax ci kaw. Mm-hmm. que ñu xeex ko que ñu bañ ko xeex. loolu mooy illustrer un peu suñu diggante. ak France ñun pays yi nekk ci côté yi. oui dañu nekk ay nit yoo xam ne dañu am fu ñu jaar ak. ak nasaraan yi. ñu am lu ñu def ci suñu réew yi. di ko def à chaque fois rek époque bu ñëw rek ñu changer façon bi ñu koy defee mais si fond bi nooteel bi nooteel rek la. Hmm. parce que le principe du du franc CFA ak nit ñu ko xamee. Hmm. je pense que africain bu nekk nekk ci surtout suñu réew yi. Hmm. ah waxuma nga dem lakk de. mais dañu war a partager même avis boobu mais au-delà de de am ci sa xalaat. dafa war a nekk loo xam ne réewu Afrique yi ay union africaine yi ñuy wooteeg ñoomin seen ñëpp hmm. tant que booloowuñu ñun ñëpp hmm. pour ne suñu principale bataille loolu la moom mooy que li ñu war a xeex xeexuñu ko parce que beneen façon ngi nooteel bu France ñëw rek def ko suñu réew yi la hmm. c'est aussi simple que ça donc je pense que doomu Afrique bu xëy di di di di xeex loolu war nañ la wormaal man je suis pas d'accord sur le fait que ñu jël ku mel noonu ñu génne ko Sénégal parce que Sénégal dafa am ay jéego yu mu teg ci wàllum démocratie hmm. ci wàllum euh, liberté d'expression hmm. te loolu dafa am lu mu àndal ça ne s'arrête pas que si ay élection ak si ay alternance ñun suñu réew dañu dañu tàmm loolu dañu tàmm dañu foog ni comme am nañ fi ñaari alternance yu am que ñun euh, ak yi taxaw na. mais est-ce mais est mën nañ continuer di fataate ba ci risque de trouble à l'ordre public comme ni waxee balaa ngay fat da nga fat hmm. ngay fat jàmbur mais pour man Semi Keba du jàmbur. du hmm. jàmbur c'est pas il faut pas ñu brandir le fait que mu yore benn passeport français man xam nga la moo am solo bu am solo. Hmm. moi je suis persuadé que c'est un Africain buy xeex benn cause. te cause boobu en tout cas muy français fa bi. je suis en phase avec lui à 100 pour cent nit ñi nag ni ñuy manifester seeni seeni seen ak seen i seen i seen i njaaxare ci yenn yi dafay ute. am na ñuy wax am na ñuy discours am na ñuy xeex am na ñu sànni xeer bëri na ay façon hmm. mais sur le principe. il faut que ñun africains yi. ñu comprendre que ni mais France moo ñu noot ba léegi na mu ñu nootee woon ci colonisation. dara changé wu ci. très bien bàyyi ma may waaw gaawal parce que li non beneen débat la nekk. waaw waaw non ci nga que dara parce que aujourd'hui mm. soo xoolee ñun lépp lu ñu am. ah France teg loxo lépp lu ñu am. ñoo teg Fra loxo ci ndox mi ñoo teg Fra ci. après c'est très caricatural. li may wax dëgg la xam nga yow ku bañ ku laal France. non bu loolu ngay bañ de. mais France teg loxo ci ci autoroute yi. ñoo teg loxo ci euh, téléphone yi. Mm-hmm. ñoo teg ci ndox mi ñoo teg loxo ci petrol bi. ñoo teg loxo ci gaz bi ak ci biir bi. loolu am solo léegi li am solo. am solo xoolal te loolu yëpp boo ko boo ko boo ko boo dindee loolu. Mm-hmm. xaalis bi nga xam ni ñun suñu réew yi. moom lay doxee France lañ koy defaree. France su koy contrôler ñoo ciy sàcc di ko jël di ci def lu leen neex te loolu moom mooy loolu mooy base wax bi. mais jël un Africain parce que je ne je ne suis pas d'accord sur le fait que ñu ne waa ji dafay dafay inciter nit ñi ay ay ay à la violence. Mm. on est des Africains. très bien xoolal ñun. Mm. Sénégalais lañu mais aussi on est des Africains. Mm. tu sais que nous quand on va en France on nous regarde comme des Africains. Hein? Mm. duñ la wax ni sénégalais bi malien bi Afrique comme africain la ñu wax. donc pour man sur la base. Mm. Ah, génn ku mel ni Kémi Séba mais c' pas normal c' pour man insulte la si Afrique. parce tout simplement mm. les Africains. fépp fu ñu nekk débat bi ñëw fépp fu ñu nekk ci Afrique. war nañu mun a xeexee foofu. merci merci beaucoup Ablaye Cissé. waaw mm. wax dëgg fa yàlla am na ci lu bari loo xam ne. raccourci la. Mm-hmm. ndax sañ nañoo wax nag ni. xeex pour CFA jóg fi taxul ñu génne Kémi Séba loolu mm. defe naa ni baax nañu wax ko parce que mm. bu Bouba nee mm. war nañ ko rejoindre ci cause bi muy défendre loolu mun nañ ko ko nangul mm-hmm. te am na ñeneen ñuy defendre contre euh, wala pour la sortie du franc CFA mm-hmm. pour que pays africain yi génn ci franc CFA mosuñu leen a bundu mm-hmm. am na ñeneen ñoo xamante ni neneen lañ koy doxalee li am kay mooy def loo xamante ni nii est-ce que lu teggi charte la am déet mhm. bu ñu jàppee ni lu teggi charte la ak lu mën a indi fitna ci biir réew mi defe naa ni sañ nañoo nangul aussi kilifa yi mhm. ñu jël dogal ne lu war a mën a indi fitna ci réew mi mhm. war nañu ko wattu c'est un raccourci aussi de dire que Kémi Seba du jàmbur jàmbur la ci réew mi ndax africain la waaye nag Euh, nationalité dafa am cest nekk dire nekkaguñu union africaine boo xamante ni benn hmm. nationalité africaine la tollooguñu foofu tollooguñu foofu sénégalais sénégalais la béninois béninois béninois la waaw loolu mooy dëgg après ñu soog a nekk africain. déedéet mais mani ci nationalité moo ne bii wër moo ne bu ba c'est pas yooyu mu wax ni yëpp. am na benn bu mooy la. du jàmbur africain la. Mm. mais du jàmbur waaw mais d'accord. africain la la ci Sénégal. déedéet maintenant. le pays l'Afrique n'est pas le pays. c'est le CFA la te le CFA ñun ñëpp on se partage. xam nga xam nga euh, am nga droit ne non xaaral man ma yeggale tuuti rek. xam nga bugguma sax ci li may wax ni ñu catalogué ni dama défendre CFA non dama ne pour le principe li tax mu génn baax na ñi ñu déglu xam bu baax. que ni du parce que dafa contre CFA moo tax ñu génnee ko. parce que mm. am na ñeneen ñu koy xeex ci yeneen i méthodes yoo xam ne sax defe naa ni. Mm. moo gën a peut-être efficace. très bien débat bi il faut pas que activistes yi polluer ko parce que bu boobaa. du sotti parce que xam nga bu ko activistes yi polluer li muy indi mooy du ñu jàngat lu weesu génn ci français boo ci génnee te étudier woo ni nga ciy génnee wala boo ci génnee looy def tigi xam nga foo dala si ngay am dëgg la xam nga si mooy lan monnaie Gambie te bu mm. boobaa nag li dal yeneen réew yi nga xam ne ñoo am seen monnaie bopp moo lay dal demal Guinée wecceeku ñaari junni xool moo tax ma ne moo tax ma ne. Hmm. mais vous êtes de défendre. ah pas mais pas du tout si. mais si le combat non le principe il boobu. dafa jar. oui am nañ ci place. Hmm. mais waruñu ko polluer. très bien maintenant économistes yi am na économistes yu mag yoo xam ne ñu ngi ci. ñu ngi ciy xalaat di ci wax. Hmm. gë gëm ni dañu war a génn ci franc CFA. mais am na économistes yeneen yoo xam ne. bu ñu nee CFA bi dafa war a des ñu ne leen vous êtes des vendus. te ma jeexal fenn. man gëmu ma li buuba di wax mm. ci ne daf ñëw noot man day mm. gëmatuma ni nasaraan wala leneen mm. mën na maa teg loo xam ne nanguuma ko mais moo fi am xaaral moo fi am bu nee ñoo nekk ci téléphone mais moom nga tëb boo nee <laughs> dañ boo nee ñoom ñoo moom <laughs> téléphone daf ñoo neex ñu jox leen ko dañ ci am daf ñoo bu ma nee bu ma ma daaneel rek bu ma nee daf ñoo neex kilifa yi nga xam ne ñoo leen ko jox laa bëgg a ne ñoom la neex ñu jox leen ko parce que bi ñu leen koy jox mm-hmm. muy téléphone muy leneen mm-hmm. am nañu ay yeneen i concurrent déedéet te ci ah mais si mais ci jamono gis nga ci réew mi du woon français yi fi teg bu yàggul rek ah, bu yàggul ci mm-hmm. diggante 2007 euh, ba golf bi moo fi tegoon tànk. moi je je suis parfaitement pas donc xam nga laa bëggoon après dañ si doon ñam ndax du bokkoon si actualité bi mais dañ si ñëwaat gën ko approfondir Birima waa Khalifa euh, man maag sawaay dañoo xaw am fu ñu bokk tuuti xam nga yaag sawaay kan sawaay buuba wala sawaay Cissé si non buuba xam boobu daan am ah, non buuba Teddy la ko ma du loolu waaw Teddy Seba dafa yàpp Sénégal yi pourquoi daf ñuy yàpp dañ ko war a expulser c'est très bien ñu ko bu ñu tooñ nit ñi yow nan tax ci réew mel ni Sénégal li fi xaalis ñàkke man ni ma bëgg xaalis heure di ko wut di dang dang nga tax di ko taal publiquement comme ça. Hmm. pour lan taal xaalis mooy tax nga génn si français fa. Hmm. taal xaalis ci biti quoi di ko taal mooy tax nga génn si. nee na symbolique bi la doon. doon benn symbolique. xaalis hmm. kenn du ko foy du caaxaan. loo xam boo ko ñàkkee jooy. ah loolu loolu la maam Libaas laay wax si kii bi boo xam ne boo ko ñàkkee wuti ko da nga koy fonk. maam wax na ko si tabaski bi loolu ba da nga koy fonk. wax ko de xaalis tax a toog fi di tatatat bu dégg bëccëg. kon kenn du yàq fooyee xaalis xaalis du fowukaay dégg nga beneen bi. Hmm. li tax demul beneen xeex ko du foofu la français laa mais Sénégal am na démocratie. moom fan la nekkee référence. Sénégal moom Afrique ba wuti xam nga lan la. français fa ay xeex ak xeex jënd ci. Hmm. li la loo xam da ko fee fekk mu mu yor sa économie. adduna bi di bouger di ak di wàcc dafa am lu nekk ñu ko moom docteur mooy faj économiste mooy économie. Hmm. am na ñoo xam ne ay professeur d'université lañ ay affaire économie lañ jàng borom xam-xam yooyu ñoo ko war a xeex ci wà ci wàllu intellectuel non c'est vrai hmm. bu ñuy activé activé mais mënoo jël yuuxu nañ génn nañ génn génn joxe mais rek boo xam ne bu ñu génnee lii ak lii la ñuy def hmm. franc CFA ñu ëpp ci Afrique bëgg nañ ci génn ah, autorité sénégalaise yi moom nee nañu lu baax la mu ne lu baax la man loolu laa gëm ne man waaw man hmm. parce que xëy na ma xamul nag dama du ma économiste mais en tout cas ñu nar a daal ci modèle bu ndaw moom man may nekk ci pays yi xam ne seen mën dafa ndaw loolu catastrophe la moom. Ah, baax na voilà Charles. waaw Khalifa. Hmm. Euh, xam nga pour man quoi nous sommes des nous sommes des enfants encore dama fii fii laa fi ne pourquoi on a tué Kadhafi Kadhafi dafa doon laaj satellite bi si kaw information bi la bëggoon. Hmm. ba woon Afrique bokk. mu rey ko Saddam Hussein. 40 pour cent de la production mondiale de pétrole Irak moo ko moom mu ne pourquoi ñu koy libellé en dollars pourquoi duñu ut dirham il faut comprendre les enjeux économiques mondiaux comme ça ñu dem Niger bi tey bu arrêté uranium France dootul tàkk dootul am électricité dafa am loo xamante ne nag dama bëgg rek wax. dafa am ay débat bi ñëwagul de xam nga la mooy problématique mooy mooy expulsion bi mooy problématique. dama la ne il faut qu'on comprenne des enjeux. oui dama la ne benn affaire. je te donnerai l'occasion si beneen bi moom controverse. ce que la loi ne euh, m'interdit je me l'autorise pas ou ce que la loi ne m'interdit pas je me l'autorise loolu muy tekki hmm. dama xam que tu ma téyee ba ma ko làkkee j'encours des sanctions ok def naa ko aucune bataille ne se gagne en un jour mm. la bataille du CFA est engagée te bokk naa si ñoo xamante ne je suis contre CFA mais du mu ko noonu mais attention ce qui est valable pour Kémy Séba mm. aussi valable pour l'expulsion parce que je n'ai jamais vu au monde benn ministre buy arrêté alors qu'il n'est pas en fonction des actes waaw les kii courants d'accord naa mais aucun acte n'est posé hmm. pour la première fois ma gis loolu ma gis deux actes benn bi c'est différent boo xamante ni benn moo benn kenn moo ko. mais le 5 septembre dafa am ay euh, heure heure lay commencé. oh ba zéro heure. donc est-ce que xam nga ban moment lañ ko signé j'en sais rien moi. Euh, oui xam nga euh, ça a été publié le 6. rendu public le 6. signé le 5. xam ngeen dafa am loo xamante ne on peut tout dire maintenant mais Sénégal dafa amoon lu mu amoon ñun dafa am loo xamante ne dañ ko amoon Sénégal on était connu pour être peut-être entre guillemets cette France de l'Afrique. fii ña ñan ñoo fi ñëw bu fekkente ne loolu la ñuy xool Nelson Mandela n'avait rien à faire au Sénégal bu fekkente ne le les pour le combat apartheid et tout quand tu combattais l'apartheid. il n'a mais il n'y a pas élu domicile. bu euh, baax quand tu combattais l'apartheid tu contre la loi sud-africaine c'est ça la vérité l'apartheid c'était une loi. dans le stade de football les Africains n'avaient pas droit à rentrer dans le stade de football pour regarder leur équipe c'était des blancs c'était une loi ñoom dañ ko xeex Sénégal ànd si ñu def fi concert def fi lépp je suis pas d'accord avec Semi parce que pour man du noonu la ñuy xeexee et si benn dëkk ñëw à l'encontre de ces valeurs indiquées ça je peux être d'accord avec ça mm. parce que j'ai été heurté j'ai été le premier à ne Sénégal du pagaille mm. mais j'ai été terriblement profondément déçu par cet arrêté-là qui nous l'expulse. Eh et dans la manière et par l'expulsion parce que dama toog di xool hmm. mu ne mais dans quel pays je suis aujourd'hui j'en ai peur. Très bien, très bien. Alors, et puis il faut prendre conscience que tubaab bi ñu boobu a totalement raison. Ils sont en train de nous contrôler. Merci, merci, merci beaucoup. Alors professeur, euh, nuyool nañ la baalu nañ la àq. Boo am sa bëgg a ñambaas comme ça après ñu avancer. Dama ci bëgg a ñambaas avant nga dugg ci débat. Waaw, ah, xanaa nuyu ñëpp gërëm ñëpp. Euh, déjà ki ma gis moom daf di une référence wax dëgg yàlla une sommité tigi xam nga Sénégal nag dinañ màggal ñëpp waaye souvent ñi nga xam ne ci wàllu xam-xam la ñuy yëngu mm-hmm. dañ leen di xaw a fàtte te kii moom dafa jàngal kii moom moo jàngal moo jàngal dama la bëgg a wax ne yaa gën a tuuti ci jàngal waaw ay génération génération ay cadres yoo xam ne ils sont dans le monde entier mm-hmm. kii mii moom ma leen jàngal donc ba mu dugg see gis ko rek dama ne ah tey de nangu du ma nangu sax ñu wax moom professeur <laughs> parce que dama janoon une référence et un maître absolu boo xam ne dañ koy euh, sargal mu dul loolu ñaanal ñëpp jàmm wax dëgg mm-hmm. yàlla ah euh, ñi nga xam ne moom mooy suñu mëbët yàlla def ci ndox mu sedd réew mi yàlla kon ni ci def euh, ndox mu sedd mhm. euh, ñi nga xam ne ku mel ni Birima Ndiaye moom dama koy beral ñaan mhm. li tax ma koy beral ñaan mooy damaa toog woowu ma ko déggu ko mu jékki-jékki ne ma professeur ah sama saw sama wàllu ci xarmaa ngi bi <laughs> donc ah, da nga def lu baax ñu wax la ko parce que xam nga da ngay jékki-jékki loolu Birima bàyyil ñu que da nga koo def te li neex ma mooy dafa nekk spontanéité mhm. du man maa la woo du man yaa mais sama grand waruma laa fàtte ci bés bu tal nii daal di yëkkati xaalis bu bare bari ma am man la ko jàppale wax dëgg yàlla dama mm. euh, a koy wax ñeneen ñi amoon yéene bi itam parce ñi am yéene bi bari nañ te jotul yegg itam kasalika ñuy ñu leen di boole maas bi di ñaan jàmm tax fi wax dëgg yàlla émission bi yàlla kon ne di ko sàmm. di ko mm. aar ku daje bitig ba doo fay ku daje moom bitig ba doo fay moom mooy fay. waaw moom waaw moo tax. wax de parler. <laughs> jërëjëf donc euh, dama xamul par quel quel ngeen aborder la question. voilà en fait l' expulsion mm-hmm. bu Kémi Séba indi mm-hmm. controverse ñi ànd si ñi ànduñu si. Mm-hmm. par rapport bi mu lakkee junne bi. ba biñ ko jiiñee ne l' ordre public euh, trouble à l' ñu ko jiitu am na lu ma wax loo xamante ni boo noppee ma ma la ko. Euh, il faut nga pare si lii après ma soog la ko wax. Ah, ça te concerne. plus ou moins plus ou moins. oui incha allah d' mm. waaw euh, xam nga nag euh, man yow yaay jiite. boo posé question dama war a tontu directement rek <laughs> ci <laughs> laaj bi nga laaj bi nga mais damay ànd ak tuuti euh, sama xarit Charles mi ma namoon lool. Mm. parce que new fi woon aju bële. Mm. pour wax ne le problème de bu ñu fàttee. Euh, problème de fond. bi nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw acte bi nga xam ne moom la Kémi Seba posé. c' est que acte boo gisee ni mu ko posé. Euh, par rapport ak ñun suñu aada par rapport ak ñun suñu cosaan par rapport ak suñu jëfin mën na heurter des consciences parce que bu ñu la gisee nga jël lu mel ni euh, euh, xaalis ab junne ab junne xaalis rek daal di ko taal dafa am loo xam ne bu fekkoon symbolique la benn la ci doon wut am na beneen symbolique également boo xam ne moom heurter na ko moom daf ko doon wone rek pour wone que ñun dañu nekk jaamu franc fa franc CFA su ma juumul colonie française d'Afrique la concerné woon mm. communauté française ou colonie française colonie xaalisu colonie la colonie française d'Afrique la. des pauvres non loolu la woon loolu la woon. loolu la woon c'était l'argent des pauvres. non non non changé ma ne moom la ba léegi. waaw d'accord la rek léegi. la euh, même chose. voilà communauté française d'Afrique. léegi changé pauvre la c'est l'argent les tubaab avaient fait l'argent pour nous les nègres. mais colonie la. mais xam nga symbolique xooyu ma ba Serge Gainsbourg di taal billet de banque bi. si banque bi. waaw loolu c'était pour c'était lutter contre la fiscalité loolu si symbolique la woon mais xam nga li si tugal du Sénégal. non il a montré que peut-être on n'est pas encore aussi bien en avant qu'on le pense aussi. Eh Sénégal du ma sa nekk tugal Charles dans les valeurs. waaw kon ban valeur ban wax naa fekkee évacuer nga dimension symbolique boobu. Hmm. c'est vrai que problème de fond bi muy posé. économiste yëpp d'accord nañ ci. Hmm. mooy que dañ la naan dix mois. quelle puissance monétaire tu as dis-moi quel niveau de développement économique tu mm-hmm. maanaam dafa am lënk boo xam ne taxaw na ba pare maanaam ci diisaayi ko li ngay jëfandikoo ñu koy woowee monnaie ci nasaraan ak sa niveau maanaam soxale ko fa mu toll. te ku nekk xam na ne li fi jóge yëpp te Afrique jur ko. Mm-hmm. ci nga xam ne vraiment ay militants lañ ay intellectuels lañ jarul may lim dañoo yàgg a xeex. dépendance boobu. Mm. ba ci sax ku mel ni Ablaye Wade su ma juumul maa ngi ko je cite de mémoire ah mu naan pourquoi change bi mu nekk fële au trésor français CFA mu ngi enrichir di développer l'économie française au détriment de l'économie africaine mm-hmm. nga gisoon koo xam ne na mën nga ko xarab ci yenn anam yi mm-hmm. tudd nga ko léegi muy Momar Kharafi xam nga waxoon nga télécommunication mais sa combat mooy prof juste juste ci expulsion bi la wax quoi après débat bi dañ ko gën a xóotal beneen yoon. waaw dama ne ci principe expression bi. c'est nit ñi am ñu d'accord am ñu d'accordul. mais ça loolu dinañ dina ñëw après. ni nga banaliser. pour banaliser bu ñu expulsé bu waxee ci français fa ñu expulsé ko mënuñu bañ a dugg xool si biir. ma yaa bi ndax ànd nga si wala nga ko defee. Mm. l'acte en tant que tel. dafa heurter. la conscience du Sénégalais parce que ñun du ñuy faral di jëfee noonu. mais moom lam la ci jublu woon lan la. di mm-hmm. dingat wone ne. ñun li ñuy góor góorgóorlu yëpp pour def ay jéego pour suqali ko. Mm-hmm. tant que monnaie bii di franc CFA moom la ñuy liggéeyee. du ñu dem très bien. kon nag li ci des mm-hmm. da nga koy bàyyee à l'appréciation des pouvoirs publics mm-hmm. xëy na ñoom ñoo xam pourquoi ils l'ont expulsé mais dans la forme en tant que telle mm-hmm. dafa heurté ci symbolique am dafa juum heurté ale la conscience du Sénégalais à tel point que xëy na la mu doon bëgg mën na tax li xaw koo lu dem mais dama ne loolu rek buñ ca yemee expulsé nañ ko expulsé ko comme ni ko boo waxee day raté le problème professeur léegi léegi yàgg buuba yàgg buuba ñu leeral balaa leeral mm-hmm. parce que baax nañu leeral mm-hmm. parce que dañu taxaw mel ni lakk bi bi moo tax ñu génnee ko baax nañu leeral ni mm-hmm. ñaar moo tax ñu génnee ko ci boog communiqué bi nga xam ne tënk nañ benn ñu ne dafay xarab ay yeneenu njiiti réew yoo xam ne xariti Sénégal lañ parce que nag ku nekk boo yoree sa kër doo bëgg sa xarit ñu nekk beneen beneen moom mooy rek man bu sama mais loolu du nekk rek débat non non duma orientation débat dafa ne lakk billet bi ci la ñu tënku ni moo tax ñu génnee ko deuxième bi waaw mooy moo di ne moom ci émission boo xam ne ci grand jury RFM sax la jàll. Mm. mu xam le ni ñu ngi préparé action yoo xam ne action d'envergure la. te ñu koy annoncé. Mm. autorité yi jàpp ni. mën très bien très bien alors alors man xamal naa man xamal naa leen ni ñoom ñi mu àndaloon dañu am dañu defal seen manifestation le 16 le 16 ab samedi la. ajjuma daañ ñëw fii toog ñu gën a yaatal débat bi pour seen xel dal pour débat bi kenn daw ko dañ ko ah, bëri yaatal alors débat moom Momar Sène merci d'être venu ñu ngi jégalu si si guddee bi donc euh, bu fekkente ne wax bëgg nga wax benn mot ci expulsion balaa ñu dugg daal fond du. waaw mais damay damay may rek ma tuuti ma gërëm sama ñi ma toogandoon fii. Hmm. boole ci ñëpp ñoom Sall ñoom ñëpp wax dëgg hmm. eh, wàll li muy wax ci wàllu communication dama ci jàng hmm. xam naa ni boo déggee mu wax nga xam ne am na xarañteef ci wàllu communication. ñoom boobaa gaa yi fi nekk ñëpp sama xarit bi la ma. professeur nag dama ko bëgg a wax ne saa ma defee cette année émission bi te wax dëgg neex yàlla néew na Hmm. ma toog weer bi ñett yoon yu ma seetaanul émission hmm. même bu ma nekkee bitim réew dama koy seetaan oui te wax dëgg neex yàlla émission saa yu ko defee ma jëli ci sujet de philosophie hmm. damay jëli sujet ci li muy wax dama ci dañ koy dama koy tënk mu nekk benn sujet de philosophie boo xam ne man sama bopp dama koy jéem a traité ndax comme pour wax ma ne ne moom euh, doole bi mu am ci biir euh, euh, émission bi ak taxawaayam te professeur bi nag moom moo ko yell mooy métier mm-hmm. ñun dañ ci fortaatu di jàngale rek mm-hmm. donte dañuy jàngale université professeur bi moom moo ko yelloo mm-hmm. li ma ci war a donc dama koy gërëm ci seede yi rafet yi ma ci li ma ci mën a wax ci affaire chimiste ba mooy wax dëgg neex yàlla anam yi ñu ko jëlee ci réew mi man rafetlu wu ma ko ndax wàllu euh, jëlee réew expulsion dafa am fu muy tegu ci wàllu yoon maanaam nit ki bu fekkee dafa def ay tooxi doon ak tooxi doon bi nu mu mën a toll nag wax dëgg ne xel da koy ne yow kat def nga nangam loolu daf lay day na tax nguur gi. jël na dogal génne la réew mi. bu fekkee ni yow léegi dem nga ba xam ni génn bi ñu lay génne tegu ci yoon am nañu ay institution nga bind ne ah man kat d'accorduma ci. waaye niñ ma nar a génne ut sa avocat kooku défendre bu ñu demee mooy recours. voilà dégg dem ba foofu ñu xool ne kii kat waruñu ko génne yoon ne bàyyi leen ko mu toog. Mm. mais dañ ko taatu fay. wala ñu ne kii war nañ ko génne boobaa. Hmm. dañ lay génne. waay américains yi barki dem nañ fi génne ay sénégalais. donc génn nit ci réew du lu lu ñu mën a nangu la. Hmm. ndax boo demee ba réew mi nga xam ni mooy souveraineté bi yaa réew mi. nga yaakaar ni kii kat taxawaayam am na lu mu faagaagal. kooku réew mu nekk. Hmm. Amérique da koy def. France da koy def. kon Sénégal def ko du ci gàcc. te du gulet du gulet Sénégal Sénégal def nañ ko fii euh, Makaba. def nañ ko fii Gambien yi. def nañ ko fi ñu bari bari. loolu daal moom xaw a naqari ci li nga xam ni yoon bi koy génne. très bien damay tënk wax ji rek yem foofu parce que. très bien am mais nag am na ci loo xam ne aussi war naa ko sànni tuuti rek mooy. Hmm. te monsieur Ba dama yaakaar ne aussi dafa am lu mu war a bàyyi xel. Hmm. moom dafa ni France daf ñuy noot. Hmm. day noot gouvernement sénégalais di noot ak askanu Sénégal. waaye dama yaakaar ne nag moom bu fekkee ne dëgg dëgg dëgg nag fi mu war a gën a concentré xeexam mooy ci kii noot. ki nga xam ne yaay noot kay kooku nga dem foofu ne ko nag bàyyi dëkk yu ndaw yi ngay noot waaye ki ñuy noot doo ñëw ni ko yow mii kat doo ñëw noot indi fa indi fa ay ay ay ay ay ay jafe-jafe mm. Mm, mm, dama laa ko waral ne ci li nga xam ne moo ëpp ay action ci ay activité France la ko waroon defee man mu nekk mais en France il est assigné à résidence en France moom laa wax dama ne ko foofu bo demoon na fa toog hmm. mais fa la waroon nag ëpp nag foofu. Hmm. toog foofu di ko fa def. bëgg nañu maanaa daal. mais professeur. non c'est pas le débat c'est pas le débat mais foofu la ëppee ah. bàyyi ko mu daaneel bàyyi ko mu daaneel foofu la ëppee. fi ma mën a d'accord ci ne waa ji mbir mi nga baal ma. Hmm. xam nga affaire béninois ak Sénégal dafa nekk lu doy waar. man bi ma nekkee école primaire. ñi ma daan jàngal ay béninois lañ. amoon naa ay enseignants wu béninois donc wax ji. waruñu ko teg foofu quoi. wax dëgg neex yàlla. Sénégal yàgg na jël ay nit ñoom Camara Laye. ñoom Djibril Tamsir Niane dégg nga ñoom amatu ay jónni fii mm. tëdd fii mm. ci sa gis très bien ñu mm. yàgg nañ Sénégal dëkku teranga la waaye bu fekkee dañ ko war a génn nañ ko teg ci yoon rek très bien alors très bien alors balaa ñuy sóobu si waxtaan yi donc professeur li ma la doon wax sànq mooy kenn ci sa élèves at mi euh, xaw ma na jot nga ko jàngal mais en tout cas sa lycée la jógee Limamoulaye at mi école militaire de santé bijoutage ba mu tëb étage doon xaru ba ñaari loxo yi xaw a damm damm mu ngi hôpital principal j'espère ñu ngi koy toppatoo mais scolaire c'est clair. c'est clair parce que il a trois mois d'indisponibilité donc euh, du gulet. bijoutage jur ay kii ba nangam sangam donc lu ñu war a bàyyi xel la. très bien donc. Euh, bu fekkente ne am na loo si mën a kii. voilà comme xam nga question dafa xaw a. sensibiliser tout à fait am mm. lépp te am na tous les paramètres mm. d'information et cetera. bien mais dañuy métitlu déjà. Mm. di ko masawu. te di ko yëgal ne moom Mamadou incha allah dinañ ko seeti. très bien très bien très kon lépp mat na li nga xamante ni nag moom la ñu war a waxtaane tey du ñàkk ba seen xel daj na ko mooy lu jëm ci nguur gu bees wala gouvernement bees bi nga xamante ne taxawal nañu ko am lu si bees am ñoo xamante ne nii dugg nañu am ñu génn am ñoo xamante ni dañu weccoo ay place donc duñ dañ siy surux si saa si ak Momar Sène Ndiaye mi nga xamante ne loolu moo ko fi indi tey nga xamal ñu déjà bi bi ñu annoncé gouvernement bi euh, yan kii nga si am ban lecture nga si njëkk am balaa ñuy ñëw si flottement bi nga xam ni ñu bari wax nañ si. waaw euh, li nga xam ne bi ñu ne gouvernement bi dañ koy taxawal fekk na ci boppam man naa ne man nee na man nee naa gouvernement bi du ma xaar ay soppite yu mag a mag. ndax lu tax mënuma ko ci woon xaar euh, élection législative yi donte sax élection yi xaw na pëccëxoo noonu dafa am lu mu feeñal mooy ñi nga xam ne ñooy coalition benn Bokk Yaakaar dañoo gañe maanaam boo jëlee ñeent fukk ak juróom ci ay département ñeent fukk ak ñaari gañe lañ ko te fu ci nekk am na fa ministre ministrable ñooñu boo bëggee taxawal gouvernement mënoo leen dindi donc Macky am mënu woon def leneen lu lii mu def ta à parce que comme ñëpp gañe nañ fu nekk Mhm. ci résultat yi gone ba officiellement mhm. donc néew moom mënul taxaw gis def guvernement boo xam ne bi da ci bëdd ñi nga xam ne gañe nañ mm. ndax moom ci moom taxaw ne na sama sama gouvernement ku ci nekk boo gañewul ma dindi ci ndax mm. ñëpp gañe mm. ñi nga xam ne ñoo ci xaw a euh, daanu tuuti mooy ñooy dañ leen gañe seen bureau de vote te loolu c'est anecdotique loo xam ne lii mën na tax ah nag pour man loolu laa jëkkoon a gis bon li nga xam ne nag am naa ko ci njàqare mooy li ñu jël ministère bu mel ni secteur bu mel ni secteur mine ak géologie. Hmm. nga nga daggat ko daggat daggat def ko ñetti ministère mine professeur xam ne li may wax. Hmm. Charles aussi xam ne li may wax. Hmm. mine ak géologie ñoo ànd. ak industrie ñoo ànd. pétrole géologie la bokk. mënoo ko dindi loo mën a jëlee ministère bi dagg ko ñetti pàcc. ah loolu loolu kenn mësu ko ci que du élément bu bees bi. Ah, moo moo ko waral bi mais mun te ñun l' essentiel économie ci li mu tegu industrie. c'est une industrie extractive maanaam du ñu amuñu industrie de transformation c'est-à-dire ñun mënuñu soppali ay ay lu bari li ci ëpp suñu kii kii suuf lay jógee léegi nga bëgg jël mine géologie tàqale kook industrie taxale kook pétrole bi loolu dafay nekk lu doy waar loolu maanaam euh, li koy wund rek mooy xëy na bëgg nañ ko nekk ñu jox la benn mbaxuus daal ba fexe ba képp koo xam ne kii daal am nga foo gagné ñu jël ko teg la ko loolu moo indi presque ñeent fukki ministère te Macky moom dafa mës a wax ni fukki ñaar fukki ak juróom beneen bi ma ci xaw a indi njàqare bi mooy. Euh, mbirum Ismaïla Madior Fall. Mhm. ministre de la justice nekk conseiller euh, bu président ci wàllu yoon. rédacteur. waaw ah. constitution constitution bi mhm. moo ko bind. ci xam nañu ne bi Macky ne du wàññi mandat moom moo ko ko xelal. Mhm. moom moo ko xelal ni ko bul wàññi mandat bi. ah kooku te wax nañu ni ci co ci ci euh, ci ci constitution bi am na galgal bu nekk ci article 27 boo xam ne war na mën a may prox ndoll bu ndaw. Macky Sall utaat troisième mandat. Mhm. kooku bu ñu ko jëlee tey jox ko wàllu justice. mel na ni li nga xam ne ñi ñaa ngi koy xalaat ci wàllu ay ragal troisième mandat wala pëccxoo bi nga xam ne justice pëccxoo na ko ba Sénégal yi. Mhm. wóolatuñu seen justice ñu ci bari wóolatuñ ko dafa mel ni loolu président déggu ko bu baax. dama ko mhm. war a déggee moo tax mu xaw ma jaaxal beneen bi mi ngi jub ci ci Aly Ngouille Ndiaye. xaritu Macky Sall maanaam li ñu naan APR pur te li waxoon ci ne ngir fexe ba réew mi dal ndax élection yi nu mu pëccëxoo waroon tax président ni ah man kat damay jël koo xam ne kii bu ma ko tegee bu ci ñëpp àndul sax ñi ëpp ci classe politique bi dinañ ci ànd. Mhm. buñ ci àndee mais ku ci mel ni Alioune Ndiaye xaritu Macky Sall la nitam la APR pur sucre la. Mhm. kooku moom kenn mënu ko weddi li ñu naan bu ñu naan bu amee Foucault ak Colombe. moom mën nañu ne ci Foucault yi la bokk maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a dëgër seen kaddu. ci wàllu Hmm. wax dëgg la xel leen te opposition bu ñu sañoon. oui xëy na même bu dee ki nga xam ne jël nañ ko def ko ministre de l'intérieur APR lay nekk day nekk APR boo xam ne bi am na jàmm ak opposition bi mën na waxtaan ñoom am na consensus waaye taxawaay boobu daal xaw nañu jaaxal. man nag hmm. loolu daal xaw na ma jaaxal. après favorable euh, fileeg boobu. après mën nañu am après favorable fileeg ah, boobu. ah man daal am naa ci njàqare. Hmm. ci ak xam naa ne opposition bi aussi am nañ ci njàqare ci kaw ne. ah bu fekkee ni taxawaay bi Abdoulaye Daouda Diallo na la taxaw. Mhm. loolu dina indi ay pëccu très bien alors pour terminer sur les départs départ Mankeur Ndiaye ak Eva Marie Coll Seck choqué wu la. non mënuma choqué nag xam naa ne Mankeur amul base. Mhm. Eva Marie Coll amul base. Mhm. Euh, Abdoulaye Seck rek moo ci test ko amul base te kooku mën nañu wax ne ci Sénégal bi mu nekkee ba léegi mënaguñu amaguñu ministre de l'agriculture bu ko gën a xarañ. kooku mënoo ko dindi wax dëgg na xel nit ku xarañ la. la santé. ministre de la santé. Mm. kooku euh, waaw mais euh, Eva. mais Eva bu leen fàtte aussi ah, li mu def. ci affaire appareil radiographie bi. bu ko defoon France du mm. fanaan. Mm. ci nguur gi kooku moom wax dëgg ne xel bàyyi ni ñu ko bàyyi mu toog nii ba nii sax. loolu dafa jaaduwul ndax am na ci ay mbir yoo xam boo ko tegee dañ la war a dindi. wala yow sax yaa war a tekki seen doomu tànk dem seen. bon am na ci loo xam nag mooy maanaam indi na ay mën nañ ci am élément de satisfaction maanaam na indi njëkk li li ñu tax sax benn ministre boo xam mooy toppatoo mbiru liggéey te Sénégal liggéey moo gën a sooxe. bu amee domaine yoo xam ne nguur gi xaw na ci lajj dëgg dëgg dëgg mooy ci wàllu utum liggéey xëy. Mm. xëy na ci secteur social maanaam CMU carte de solidarité yi ak yeneen yi ak yu ci bari même infrastructure yi. nguur gi mën nañu wax ne sax ne lañ ci taxawal mën na ko nangu. dal na xel mm. waaye ci wàllu woowu nag. Mm. wàllu liggéey ndax dëgg neex yàlla. politique yi ñu fi teg. amul ci benn boo xam ne bi daal antu na ni ko nit doon xaare léegi bu ñu demee ba teg benn ministère boo xam day wut affaire xëy rek. ci ndaw li nañ ne daal nañ ko def mu dëgg ci ñoom fexe ba léegi loolu ñu seet nu ñu mën a fexe ba génne ndaw yi am na instruments yi ñu tegoon instruments yi FONGIP wala FONGIP yooyu yëpp wax dëgg ne xel doxagul. Mm-hmm. ay agence bi toppatoo affaire ndaw ndaw euh, liggéeyu ndaw yi. Mm-hmm. moom itam lañ ci doon yaakaar gisaguñu ko. Mm-hmm. ah léegi nag bu ñu demee ba yaakaar ne dañu war a teg ministère boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam. kenn folklorisé wu ko ndaxte aussi nag wax dëgg neex yàlla affaire liggéey dañ ko fooyee. dañ ko def affaire wër ci dëkk yi di musique fii di joxe ay ay de devant tout le monde naan am leen ngeen liggéey fii wax dëgg nekk yàlla man loolu man du man pour man loolu du mun nekk politique u liggéey politique u liggéey dafa nekk loo xam ni du du du lu ñuy lu ñuy fooyee très bien donc politique lay doon bu ñu teg hmm. ko ci yoon ba nga xam ne day abi yoon képp koo xam ne ki war nga am liggéey di hmm. ndaw ñu teg ay liggéey seet xeetu emploi yi seet hmm. secteurs yi nga xam ni war na mën a indi liggéey maanaam agriculture bi hmm. secteur primaire bi yooyu dañ ko négligé hmm. secteur informel bi li mu mën a indi ci liggéey dañ dafa bari hmm. am na ay product yoo xam ne teg nañ ko maanaam xeetu bërëb liggéeykaay yoo xam ne ci biir ah, euh, gox-goxaat yi la mën na indi liggéey euh, moo tax daal ba léegi ministère bi ñu teg bu ñu ko joxee gëddam jox ko li ñu ko war a jox ci wàllu jumtuwaay ci wàllu xalaat mun na fexe ba suqali ndóow réew ndaxte professeur dama bàyyi ma ci cent cinquante mille diplômés yu am master niveau master ñooy génn at mu nekk. amuñ fu ñu liggéeyee. Hmm. kooku dañ ko war a fonk. très bien ko fooyee. très bien alors photographie Momar Sène Ndiaye Bouba loo si xam. waaw mais man de man de euh, li ma ci xam. Hmm. je pense que euh, gouvernement boo xam ne day préparer dix neuf mois yi di ñëw. Hmm. loolu la parce que xam nga euh, damay damay damay këf fi mu doon waxee rek. ci wàllu emploi. di wax que pour man ay emploi et tout ça vision la. c'est pas quelque chose boo xam ne da koy da ngay ubbi suuf si dugal si léegi engrais bi mu jax léegi soo amul vision si durée à 19 mois tu peux pas faire de miracle qu'on se dise la vérité te bon échéance yi nga xam ne mooy ñëw ci wàllu euh, politique ci wàllu élection présidentielle hmm. tax na euh, fu mu nekk nii gouvernement bi ñu fi teg hmm. c'est un gouvernement boo xam ne ñi nga xam ne ñoo mën a fexe ba président Macky Sall gañel deuxième élection deuxième deuxième mandat. Mhm. moom moo tax ñu ñu teg ko fi. bu ñu waxante dëgg ba nga xam ne pàcc pàccee yi je me demande est-ce que s'il y a vraiment une vision derrière wala c'est pour satisfaire effectivement euh, parce que réew mu mel ni Sénégal am quand même 39 xaw ma 40 ministres. Mhm. loolu kenn mënu ko comprendre. réew mi réew fi réew boo xam ne ñu ngi am 40 ministères. 39 boo jëlee 39 benn la rek. Mhm. boo jëlee boo jëlee. ci <laughs> wàllu quand même bu soo jëlee soo jëlee wàllu culture. Mm. bi nga xam ne. sama genn wàll gi ci la yëngu. moom mooy ministère bi nga xam ne de Ablaye Wade euh, à de président Ablaye Wade à président Macky Sall moom lañ ci gën a ñàkk respecté mooy ministère bi nga boo xam ne kii la rebond la c'est pour mettre des gens après ñu dindi leen fa mais amul benn vision boo xam ne di nga gis benn ministre boo xam ne am na benn benn benn plan. ak Koulibaly a va changer peut waaye man yi doon lay def après keneen parce que parce ministère boo boo wax mm-hmm. bu ñu waree changer foofu la ñu njëkk a foofu la ñu njëkk xool dafa am ay ministères yoo xam ne gars yi dañ leen yem. ay genre joker waa joker te xamuñu ni euh, culture dafa am solo. te hmm. xam nga xam nga lan moo moo moo ma jaaxal euh, les nos hommes de culture. Hmm. yi nekk ci réew mi. xam nga dafa am loo xam ne pour ñu mën ko préserver pour que vision bi gën a gën a gën mën a dem ci kanam ñi nga xam ne ñoom ñooy incarné loolu bëri nañu fi ay kilifa yoo xam ne ñoo ŋànk culture bi. Hmm. mais est-ce que ñoom ils mettent assez de pression si état pour que quand même ñu gën a respecter mbirum culture. parce que moom laa doon wax léegi pour nga mën a développer loolu il faut mu am vision il faut mu am benn benn plan boo teg mais bu dee saa yu nit ñëwee le temps muy muy muy muy muy dugg ci biir cabinet bi. Mm. bay xam dossier yi nga jël ko changer ko indi keneen. parce que ils ont un manque de respect depuis président Abdoulaye Wade si mbirum culture hmm. te loolu c'est très très grave boo seetloo dëggantaan parce que gars yi dañuy liggéey ba si yàgg ñu indi benn waaye bu ñu bu kii demee bu amee problème moom la ñu njëkk a changé hmm. loolu moo fi nekk ah loolu il faut qu'on se dise la vérité te loolu aussi pour man ñi nga hmm. xam ne ñoom ñooy incarné loolu dañu war a exercer benn pression au niveau de l'État normalement normalement dañ leen war a laaj leen qu'est-ce que vous voulez ban politique ngeen bëgg mais duñ ne laaj sax seen abi après mm. indi benn nit boo xam ne balaa ñu koy xam waa ji dem na donc man damay alerte aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbirum culture bi nekk ci kaw nag di ko incarner séminaire yi bëri na fi euh, euh, dédicace livre yi bëri na fi euh, salon de yooyu yooyu bëri na fi mais xaw na retrouver xaw na retrouver stabilité par rapport au régime passé mais non mais moo nekkoon département bi gënoon instable mais ba léegi mu ngi nii dem. waaw non waaye dem na mais bon. mais moom laa la ñaata ministère de la culture lañ fi am. oui depuis bi président Macky ba nekk. depuis président Macky Sall. waaw ñaata. Hmm. ak ak. on en a eu quatre non. trois trois ou quatre. bii mooy quatrième bi. bii mooy quatrième. oui waaw waaw donc et de quatre. Ah, ah, ah, Abdoul Aziz Mbaye hmm. ak ak moom laa lay wax. xam nga xam nga moom laa lay xam nga hmm. man bii moom damay jël damay jël man li nga xam ne. mais bii la gën a stable. non non non dama ne. xalifa stablul mënoo ñoo am bi fi président Macky Sall yéeg ak léegi ñu am fi quatre ministres nga ne dafa stable ah, fu quatre ministères am stablul par rapport ak bu njëkk ba non non mais xalifa xalifa mais pourquoi tu défends le fait mais je ne défends rien mais non li ma wax c'est factuel non non c'est pas factuel parce que tu essaies de trouver benn benn explication à ça non je compare non je compare quatre ministres en 60 mois en 60 mois ministère culture moom moo nekk ci ci début développement. on est bien d'accord on est bien d'accord non defal daal dama ne. aussi boo nee dafa stable. Mm. ñu contexte par rapport ak bële moo mais par mais déggoo déggoo mm. c'est la mburu ko farine c'est la même chose dama la bëgg wax que ci domaine culture. oui. état euh, kii kii fi régime yi fi jaar yëpp respecté wuñu culture te nit ki nag boo ko yebee ci doxin bi la ñi nga xam ne ñooy incarné culture bi ñoom ñoo war a jóg taxaw

Euh, composition gouvernement bi am na réserve yoo xam ne am nañu ko ci yenn point yi bu ma jëlee bi njëkk ci ba mu dégg mm-hmm. euh, bu ñu déclaré ni de but en blanc que ministre de l'intérieur bu bees bi euh, affaire pur sucre la ci histoire bu récente rek Aly Ngouille Ndiaye ministre ministre de l'intérieur bees bi ci ñi mujjee ñëw APR la bokk defe naa ni. parce que parce que attention. Ah, mouvement de Sahel mouvement mouvement la créé woon. mouvement boobu moom mujj waaw d'accord mais xam nga déclaré kon. APR pur sucre la et puis. faut que par rapport à son engagement peut-être mais moom non non par rapport à l'engagement. non mu leer parce que mm-hmm. bu ñu ko déclaré woon day mel ni. ci ñi sos APR mais baax na ñu leeral ko. Mm-hmm. Mm-hmm. maintenant maintenant maintenant. defe naa ni. ministère boobu li fa nit ñi doon xaar tout au moins moo nekkoon changement Abdoulaye Daouda Diallo. jóge fii gis nga ministère boobu mënoo fa def lu mënoo fa def leneen lu dul teg fa. koo xamante ni nii sur les faits lañ koy juger. peut-être amoon nañu un consensus bu Abdou Diouf expérimenté woon Abdoulaye continuer ko. Mm-hmm. di nommer ay personnalités yoo xam ne à la limite njortal nañ leen neutralité muy ay militaires yu nekk à la retraite. Mm-hmm. xamuñu nag lu tax principe boobu. continuer wu solution la woon peut-être mais am na politicien dama ko leen wax noonu rek deuxième bi mooy mhm. je pense que pour une fois euh, ci ñaari ministères yi nga xam ne Momar Sy grand Momar Sy ni bëri tudd na ko mhm. je pense que mun nañu pour une fois d'accord ni xay na bu ñu leen fi jëlee man du ma d'accord ci toujours grille d'analyse politique amul base parce que quand même chancelier ministère des affaires étrangères wax dëgg fa yàlla bariwul ministre yoo xam ne. ñu ngi le président da ko waxoon da la base daal di ne. mais bu doon loolu la hmm. kon gouvernement bi. Hmm. du yem ci nombre bi nga xam ne fala yem. Hmm. parce que dépassé wul 39 comme na mu nekkee woon. te tamit dana am ñeneen ñoo xam ne dañ leen gën a récompenser. mais defe naa ni am na ñaari département yoo xamante ni nii. li tax ñu jëlee fi ñooñu foofu laa d'accord ñu ne amuñu base. Mhm. vraiment ministre des affaires étrangères. bariwul ñu fa nekk di politique. Mhm. am na nag ay ñoo xam ne politiciens la ñu woon mais boo ko xasee ba nekk. Mhm. mënatoo sax politique parce que li ngay nekk bitim réew moo ëpp li ngay nekk ci biir réew mi. loolu moom lu am la lu wér la. te defe naa ni ministère des affaires étrangères soppeeku bu ñu fi séntu woon ci échec u diplomatie sénégalaise la wax dëgg fa yàlla ci nag weer yu mujj yii. ci post yi nga xam ne Sénégal yóotu na ko ci institution yi sous régional ak si si loolu mooy dëgg. Mm. deuxième chose. je deuxième chose bokk na ci li nga xam ne for nañu ko ci loo xam ne yóbbu na ko c'est-à-dire déclaration yi nga xam ne ministre des affaires koy def te amu ci déggoo ak président de la république lu mel ni ki mais si si. lu mel ni ki lu mel ni ki sax. te xam nga c'est quelque chose qui tient à cœur président Macky Sall. Mm. diggante Sénégal ak Gambie. gis nga tey bi mu amoon wala réserve bi mu demee woon ci conflit bi. oui c'est la première fois ñu dégg ministre des affaires étrangères. boo xam ne day taxaw di annoncer beneen réew boo xam ne c'est un pays ami Gambie mu naan leen am na ñuy préparer. Ah, coup d'état ci seen réew mi. ba loolu merloo na waa Gambie trop te loolu xam nga déclaration la yoo xam boo concerté ak président dafay mel ni sax moom ngay indil jafe-jafe parce que euh, li muy gérer Gambie defe naa ni loolu mënuñ ci yoon sori ministre de la moom waxatuñu ko parce que quand bàyyi woon ko fi ak li fi xew yëpp ci wàllu santé nit ñi ni ñu tumurankee ci seen wàllu wér gu defe naa ni logique la pour une fois sañ nañoo njort ni li tax ñu jëlee leen fi manque de résultat la mënuñu ko tënk rek mm. ci wàllu politique am na nag yeneen yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla si la boo xam ne du mës a parce que saa yi bu ñu fi taxawalee gouvernement. débat am na fi ci architecture gouvernement bi. Mm. Mm. d' ailleurs li koy compenser souvent sax. mooy décret de répartition des services bi. te loolu gis nga moo gën a important architecture gouvernement parce que gisoon nañ fi gouvernement yoo xam ne bi ñu ko defee. Mm. ñëpp d' accord nañ ci architecture bi. mais répartition des services presque agence yu mag yi waroon nekk ci ministère dañ leen jël yóbbu leen secrétariat général la président de la République jamono Idrissa Seck la woon mm-hmm. donc ministère yi finalement ay coquille vide la woon donc décret répartition service yi lu ëpp moo ëpp importance sax architecture yi ni ñu koy doxalee je pense que loolu aussi lu jar a bàyyi xel Khalifa man ñaari phase laa bëgg nga may ma ko hmm. mooy dama wax sama xalaat ci ni ma foogoon noonu la demee te demee ko hmm. mais di nga may ma tontu sama tonton bi balaa après man avant gouvernement bi taxaw li ma foogoon ni moom la Macky Sall di jiital étant politicien bëgg moom mu am deuxième mandat dès le premier tour loolu la gëm loolu politique kon ku bëgg loolu. gouvernement bi nga bi ma yaakaar mu la waroon du kon bu mel nii. man sama gisu bopp. kon mm. dama jàpp ni. kon dafa juum. non du ma wax loolu xalaat ma daa wax li tax mu def li mu def. Mm. information sama gis man laa wax. moom moom li mu def. man li ma xalaatoon man. personnellement mais gisee ko noonu. waaw man xam nga li ma xalaat ak moom la ñu xalaat mu doon benn ndax moom ëpp information. Mhm. man sama gis-gis man nga xam ne dama bëgg. li ko wax dama man nga xam ne dama bëgg. mu mu jàll premier tour. dès le premier tour def parce que dans dix huit mois élection jot mun na fi dem gouvernement fu ma te wax lu bëree bëree bëree bëri faut sérieux dama yaakaar ni dama yaakaaroon ni li mu jiital li mu waroon njëkk a jiital. Mhm. mooy porteur de voix. Mhm. am ay département ay zone benn li boo doon jigéen mooy ay porteur de voix mu jël leen deuxièmement mu yaatal Benno Bokk Yaakaar espace gouvernement bi doon doon na xaar ñu jël ci ay ministres yoo xam ni ci opposition radicale yi pour Benno Bokk Yaakaar gën a gën a yaatu loolu sama gis bopp la. Hmm. man ba laajee sama xalaat naa ko wax loolu. ñu fexe ñu. la man ay politique. waaye damay politique doo bëgg wax Sall gagné man politique laay wax. ba gën ko bëgg a gagné. waaw mais de moom mu gagné man. oui bu man li ma xalaat tam mooy mu yokk benn bokk yaakaar te loolu. mën nga ko am xam nga bala ma dañu Sénégal ay technocrate mais kan ma gën a technocrate politicien yi. mais pour nga ne politicien ñaata cadre de haut niveau ay professeur de ma ma Mor ñaan du technocrate du politicien. du politicien ñeneen du ay technocrate du ñu politicien donc. loolu. Hmm. laa gisoon ni moo gën mais malheureusement gouvernement bi ñu ko tëralee ba léegi. ba ah, ne pas d'accord waaw moo xam man du ma xam ak bu ma. est-ce que sénégalais mooy wax nii. waaw dégg nga la. non non non bu sénégalais ci fànn. sénégalais mais dafa fàtte assumer ko. non non non non parce que gouvernement bi gars di di mais pour Sénégal lañ ko former. mais pour loolu pour Sénégal non non mais. ci politique politique yow. mais mais gouvernement politique. waaw ok c'est bon Birima allez àggali. loolu mënul nekk àggali li soxla. mais ñooy déglu man li soxla voilà deuxième point bi beneen bi. Euh, beneen bi. Mm-hmm. ma wax le doyen. Mm-hmm. nit da ngay rafet njort ci moom. Mm-hmm. bu gëmee ne moom am na dignité boo xam ne. kenn du ko jaral mu jaay ngoram ngir ak njabootam. war na ko mën a nangul keneen. bu yaakaar ñoo gën a diñ Aly Ngouille Ndiaye dañuy tooñ seen bopp. Aly Ngouille Ndiaye Sénégal fils de Sénégal dëkk ci réew mi di politique ànd ak Macky Sall kan moo gënoon a gëm Ousmane Ngom Abdoulaye Wade mais bi mu dee xam nañ ko gañ dafa ànd ak dignité ñu xam ne ñoo gañ ñu de lu ngeen bëgg Macky Sall jël la ma la Macky Sall jël un minute wala ko wax dëgg yàlla bu ñu jëlee tëddee comme président du Sénégal li ñu bëgg du ko def. ku neutre ku consensuel ku fi neutre ku un général fii et eh, maintenant Abdou Diouf Faye un général d'armée ñu ko ngay politique du du fi toog vous rappelez de ça. bi mais consensuel. waaw général d'armée général fii ci réew mi Abdoulaye na du fi toog xeexam waa démissionné fi la ñu fekk nga ñu naan Macky Sall du fal ku mu àndalul. ñi ko gëm lay àndal fal la ministre de l'intérieur du fal ay adversaire am. très bien bañ. waaw foo mu sa gisul ci àdduna. merci nga jël lecteur de ce pays poumon réew mi. très bien très bien merci Birima wax loolu la. bu ngeen bëggee daaneel Macky Sall loolu moo fuñ. loolu kan kan yaa bon ñu koy wax ñëpp y compris son tonton bi. bu seen ak daal Birima chaque jour bu débat il fait tout pour Birima et c'est pas juste. Birima kenn jéem a fekk sa dama le vieux là heure bu waxee. Birima Birima te mënu ko Birima. le viol le viol là c'est un professeur. mais sa papa <laughs> il faut qu'il arrête. mënul daanal Macky Sall. Birima Birima beneen bi. Birima fi ne du wax pour daanal kenn. dama ni journaliste yeeg yées si la. dama ni eh, faut pas dire ça. maa ko wax. dama ni mais Birima tu peux pas généraliser. vous n'êtes pas des références dans ce pays. Birima arrête. vous n'êtes pas des références. maa ko wax. waaw baax na. vous n'êtes pas des références. merci professeur professeur <laughs> mbir ma xamul moo koy def. waaw ah, dégg nga bàyyi ko nag bu wér di wax bàyyi ko mu wax. franchement bàyyi point de vue am. mais xas na corporation bi yëpp nee <laughs> nañu di ko tooñ di ko yëngal. Euh, waaw gouvernement bi day man ñaar euh, ñaar laa ci am euh, premier jàngat bi déjà mooy par rapport ak peut-être atermoiements yi amoon. Mm. Hmm, boo ko seetloo amoon na benn période de mu dindi premier ministre bi après ñu toog je crois 48 heures pour mu indiwaat ko. mu xawoon indi tuuti atermoiement loolu boo ko xoolee am na ñoo xam ne jàngat biñ ci jàngat mooy euh, Boun Mouhamed Boun Abdallah Dionne parce que j'ai pas l'habitude de nommer des gens mais quand même booy wax il faut nga tudd ay nit euh, dafa mm, ñëw régler li nga xam ne dañ ko presque dafa ne woon traumatisme voilà defloo rek deuxième partie bi noonu dañ si waroon ñëwaat après quoi si kii bi si flottement bi léegi nga réagir si première lecture bi sa première photographie ak say waaw ña ñaar yooyu de ñaar yooyu de. link link boobu si si mais je euh, en fait damay partager un peu. Euh, idée bi nga xam ne man at xaaruma woon ay mm. miracle. Mm. <coughs> xaaruma ay miracle. pourquoi xaaruma woon ay miracle. parce que le président de la république. ak ku mën ci doon. mënoo ko tere raisonner. Mm-hmm. en fonction d'un paramètre au moins. Mm-hmm. paramètre bi mooy ñu ngi dem à des échéances électorales comme ñu ngi dem à des échéances électorales amul aucun chef d'État au monde bu dul intégrer le fait que su may yokkul du ma am na loo xam ne le chef de l'État da ngay xam ne position sax neexul xam nga tax position neexul mm. parce que am na loo xam ne yow yaa ko moom mm. mooy nga xam ne say allié lañ ñoo nekk ci pas say alliés say partisans yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir APR. nekk ay membre fondateurs APR. mais boo leen seetloo am na ñoo xam ne sax dañoo am sentiment de frustration. oui pourquoi ñu am sentiment de frustration. parce que euh, boo jëlee institution yi ay HCCT ka fa nekk xam nga ko assemblée nationale ka fa nekk xam nga ko euh, conseil économique social environnemental et cetera ka fa nekk xam nga ko mm. beneen paramètre bi mooy. am na ñoo xam ne ay alliés lañ bokk bennoo bokk yaakaar ñoo fekk si ko. donc moom toogaay bi mu toog ci dilem lay nekk dafa naan ñaar. ou bien ma ne l'heure est venue ma ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo sos parti bi nank ko ko sonn ci ba ba léegi ànd ak ñoom dem quoi qu'il puisse ma coûter bi. ou bien beneen posture bi mu ne ah comme dafa am ay élection yu ñëw en mille dix-neuf xel mënta nangu ma wàññi kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak man donc bu fekkee da nga intégré ñaari paramètres yooyu doo mën a jaaxle doo mën a xaar ay miracle mais ci gouvernement bi ñu fi formé c' est un boo xam ne dans l' esprit ki ko formé c' koy permettre mu gagner les élections qui doivent venir très prochainement mm, mm. maintenant am na ay éléments d' analyse ci biir yoo xam ne peut-être sur les personnes nangam nangam bon chacun peut avoir ses réserves mën nañ ci dugg tuuti Euh, évoqué na le cas du ministre de l'intérieur man li may dellu si mooy li samay dellu si woon mooy que amoon na un consensus fort hmm. ku nekk xam na ne ministre de l'intérieur mais forcément c'est dans tous les pays du monde forcément c'est un proche du chef de l'État donc dans nos pays boo rek buggee régler question bi hmm. fexeel ba la question de l'organisation des élections nga bañ ko dénk ministre de l'intérieur créé kuréel goo xam ne dafa neutre indépendant mu géré ko hmm. waaye mën a taxaw fii euh, kii dafa jege chef d'état dafa jegewul chef d'état alors que c'est lui-même qui le nomme il ne peut nommer que quelqu'un en qui il a confiance mmh. maintenant man du may dugg ci mon doyen souvent ci ay détails hmm. mais ci côté boobu je partage li euh, kii wax euh, ki ñu fol muy Aly Ngouille Ndiaye boo xaw ma sax ne c'est un euh, APR pur sucre comme <laughs> comme ni nga ko tuddee. mais kenn la koo xam ne a priori. man nee naa l'idéal mooy ñu dindi. élection ci ministre de l'intérieur. mais pour tudd kooku a priori mën naa am rafet njort ci moom parce que as tuut ba ma ko xam image yu technocrate la ma jox. astuut ba ma ko xam nit ku sérieux la ma jox astuut ba ma ko xam ku dëgg la ma jox mais dama ne la véritable question nekkul foofu man de su amoon lu ma gënal muy ci nguur gi muy ci keneen la question des élections ñu foqar ci ko ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur dénk ko koo xam ne c'est un organe neutre mais pour mu mën ko mën ko mën ko gérer hein qui est neutre waaw mais mais amoon na organisation des élections non non c'est-à-dire boo ministère de l'intérieur non non dégg xëy na loolu moo war a. mais boo ko déggee mooy day nekk ñoo xam ne seen euh, par ci politique fësul xam nga dans l'absolu ku nekk am nga logoom xam nga ñooñu sax dañuy wote ji kon am nañ ay conviction politique mais mën ngaa jël koo xam ne au moins ay limu ay parparam pësul réew mi yëpp d'accord nañ ci nag ku nekk ku nekk xoolal le général Cissé liir nga livre am bi mu bind un soldat au cœur de l' liggéey bu rafet bi mu def xëy na bu fekkoon moom nekku fa alternance bi fi jëlee Abdou Diouf indi fi Ablaye Wade boobu mooy ah du ma wax du am waaye la ma jàngat ko téeréem booba noonu wax dëgg yàlla donc dina dina xaw a jafe benn élément bi également mën na am damaa jum j'essaie de parler objectivement mm-hmm. euh, parce que yaa ko tudd si yow du ma ko tudd mooy Ismaïla Madior Fall yàlla dafa def ñu nekkandoo université jàngandoo ma xam ko et mm-hmm. euh, ci ki ma xam ku déggu la ci ku ma xam borom jikko bu rafet la et je crois que il s'est capable de se mettre de se mettre. l'un des meilleurs de ah? droit. Hmm. Euh, waaw xam nga ko wër li ma wax. l'un des meilleurs professeurs de droit. dans de meilleur xam nga dañ ciy def. l'un des hmm. c'est bien dit l'un bu mu mënti doon. waaw man sama xam. l'un des meilleurs dégg. waaye mën nañ ci am un préjugé des meilleurs perturbateurs voilà je sais mën nañ ci am un <laughs> mën nañ ci am as njort bu rafet donte parce que encore une fois foofu la ma cay yokk kóolute ba moo mën ca am Ismaïla Madior nañu fexe ba encore une fois problème bi newul euh, Bouba mooy ministre la justice wala nangam mais tant que defoo également même rupture bi entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif dans la pratique wax dans les faits quand foo mënti teg il continuera d'être serf dans la volonté du chef de l'État donc le problème de fond c'est réaliser la rupture mm. non pas simplement principielle mm. mais factuelle entre ministre de la justice bi ak le pouvoir simplement exécutif tant que loolu amul koo fa mënti def dina régler aucun problème benn may mujjee nga baal ma ko Charles ah mooy que en fait euh, li ma doon wax mooy bu ngeen ko seetloo dañ dul jàngat suñu histoire mais boo jëlee Charles boo parce que ku ñëw rek tu es obsédé par le fait que euh, sama premier ministre kan la Abdou Diouf avait réussi à régler ça en amenant quelqu'un koo xam ne dem si yàlla si ñu ngi koy yàlla xaraka ajana muy Abdou Thiam mm. nga xam ne il ne se définissait pas par rapport à la politique mais il se définissait par rapport à des valeurs de loyauté par rapport à des valeurs de il s'en est il s'en est aussi à un moment donné premier ministre qui oui oui parce que loolu yëpp traumatisme boobu la. depuis 1962. Mm-hmm. bicéphalisme bi entre Senghor ak Dia. ba ñu créé le poste de PO xam nga ko supprimé woon. oui ñëwaat créé ko. Mm-hmm. loolu yëpp soo ko gisee c' pour véritablement éviter dauphinat bi au niveau de l' état. gisoon nga Abdou Diouf ak Babacar Ba. Mm-hmm. ba mu fa jógee la indi Habib Thiam le premier ministre nekkatul un homme politique un grand intellectuel mais d' abord défini par des. Abdoulaye waaw mais Abdoulaye Wade gis nga ko ba mu mu ngi naan ngóor si fauteuil bi lay lorñee lu fa jëlee Moustapha Niass mu ngi naan ngóor si fauteuil bi lay lorñee hmm. au moins donc am na koo xam ne moom yaakaar na ne dina ko jàppale ci liggéeyam te xëy na nekkul ci perspective waaw professeur xam nga pourquoi loolu am hmm. parce que nos chefs d'État sont élus pour leur réélection ils sont pas entre les deux hmm. yaa ngi may dégg bu baax ils sont élus pour leur réélection le programme boo xamante ni moom la ñu jaay peuple bi kooku moom la ñuy fàtte donc xalaat bi rek mooy réelection bi bu ñu koy commencé wax deux ans yi ak cinq ans yi ak sept ans yi bu ñu koy wax c'est deux ans avant le vote. Hmm. deux ans avant le vote ñu ngi wax cinq ans sept ans kenn ñu defar réew mi alors. bu dee ku ñu fal loolu mooy suñu vraie question gis nga dispositif de de guerre président Macky Sall teg pour tour kaw 2019 loolu rek la pourquoi boo xoolee le législatives de desquelles nous sommes sortis hmm. mais dañuy wax rek. mais la majorité n'a pas gagné. Oui. sur le sur les sur, sur le total 49 et quelque la am. wax ma dans quel pays au monde. Hmm. nga am 49 pour cent virgule. et tu es nga gagné c'est-à-dire ci raw gaddu bi nga gagné. Hmm. mais si décompte bi la euh, l'opposition est majoritaire éclatée mais elle est majoritaire. émiettée émiettée elle est majoritaire avec cinquante et quelque. Ah lecture la bi. waaw waaw mais même même si c'est qui mm. mais je veux dire ça mais je te rappelle une chose mm. opposition ma def législative mën nga ci génne 7 à 6 ñu am député 3 à 4 bi nga xam ne am nañ député à l'Assemblée ci Benno Bokk Yaakaar lañ bokk waaw c'est comme ni Diop si waaw ah, maa ngi te pourtant dañuy opposition ak seen liste bopp. waaw ñooñu Macky Sall ànd ak élection présidentielle. waaw ñoom ñoom dañu teggi woon waxu. Macky Sall non tegguñu ko dañu seen parti bopp législative ñu àndal seen bopp mais présidentielle Macky Sall la ñu àndal. moo tax kàddu gi boobu taxul non non non non Diop si va va va day ànd ak. Macky Sall ànd mais mais ko continué ko continué mais yaa ko xëy na si suma entendement lan moo indi lii hmm. suma entendement loolu moo indi lii très parce que boo xoolee bu baax coow warul ñàkk si biir benn bokk yaakaar mais moi mon problème c'est pas le problème des hommes mm. c'est que dama gis que gouvernement bi lu mu tollu nii ça hmm. veut dire que c'est nous les contribuables qui allons financer la réélection du président du candidat Macky Sall en 2019 parce que 2019 il n'est pas président il est candidat et c'est nous qui allons financer ça Pourquoi? avec euh, cabinets

moom Ndiaye moom laay on a parlé de découpage tout à l'heure ba toogee débat di xool affaire bi le découpage effectivement ñu ko xoolee ay reen ñoo ma jàpp. Hmm. parce que on ne peut pas prendre euh, géologie. prendre pétrole ce n'est pas possible. c'est-à-dire na forme de cohérence yoo xamante ne. Hmm. moom la ñuy xaar ci biir gouvernement. maintenant maintenant quand boo liiree bu baax boo xoolee affaire yi gis yenn connotation yi yenn résonance yi il sera très difficile et pour que l'opposition existe et encore mm. ce qui restera de l'opposition pour 2019 très bien parce que boo xoolee gouvernement bi lu ñu ko monté hmm. un temps soit peu si désenclavement bi gars yi liggéey nañ ko très bien de la famille liggéey nañ ko ba triplé voire quadruplé la bourse familiale ba nit ñi def liggéey boo xamante ne moom dans les villes afin de régler le problème du désamour entre le président Macky hmm. et les gens des ça veut dire opposition mun na dem tëddi nelaw xaar bu 2024. très bien très bien merci am na loo xamante ne nii euh, dafa am lu si bëgg a yokk waaw. allez-y allez-y. waaw mais damay bëggoon rek mm. ñu waxtaan ci ndànk ci tey. Mm. ndaxte am na ci ay wax yoo xam ne bu ñu nekkee ci télévision di ko wax. Mm-hmm. Euh, rafetul ñu di ko génne ci suñuy kàddu ndax ñëpp ay mukallaf lañu. Mhm. lu ma leen mag mag mag quand même am na cër boo xam ne bi war nañ ko mhm. joxante. Mhm. ndax taxaw ci lu mel ni télévision naan da nga bañ président. da nga bëgg mu daanu. dëgg neex nga bir ma waxi far lay ma gëm laax de. waaw waaw mais mais mais bàyyi ko mu waagali. man euh, je dis ce que je crois. biir ma li waa ji waxoon tu n'auras pas ma colère. cest à yow mérité sax ma lay mere. foofu laa yem. Macky bi ma koy xam boobu. ministre la ma nekk ci conseiller. mais ne justifie pas mais dama la wax ni la. Mm. lui n'aura pas ma colère parce qu'il ne la mérite pas. oui foofu laa mën a yem. très ci mën a nekk mooy. Mm. dama bëgg a préciser leen man Aly Ngouille Ndiaye xaw ma ko. Mm-hmm. Ismaïla Madior Fall je le connais très bien pas plus tard que tey yónnee naa message de félicitation. Mm-hmm. parce que dajale na moom y' a pas dix jours ci benn émission interrogé ko. Mm-hmm. wa waxtaan ci affaire troisième mandat bi. donc mënuma koo ŋaññi. déedéet Aliou mu Ndiaye xaw ma ko dama ni le opposition bi li ñu waxoon te Sall wax na ko ba mu leer. Mm. ne ah dañu bëgg un ministre consensuel. koo xam ne mm. kii ñëpp ci ànd ko teey mm-hmm. koo xam ne kii vraiment xëy na. opposition bi dinañ nangu moom mais bu ñu jëlee koo xam ne ci APR yàgg na ci mag day indi coow te lépp loo xam ne indi coow. dañ ko war a bàyyi am élection yu apaisée. très bien ndax li nga xam ne xew na ci Sénégal. en tout cas élection yi passé non je je termine. Mm-hmm. élection yi Sénégal yëpp àddina yëpp di xool naan Sénégal comment naka la mën a Sénégal am élection yu mel nii. Mm-hmm. loolu la ñuy dawal Sénégal ñëpp ay man Aliou Ngouille Ndiaye xaw ma ko. très bien en tout cas affaire aussi la même chose. li ñu bëggoon mooy ay cent quarante professeurs de droit. ñoom ñoo bind na waa ji lii mu wax. ci affaire conseil kon tegu ko fenn. tegu ko fenn loolu nag bu fekkee ni ko doon nommé ko ministre de la justice. Ah. te yow say cent quarante collègues bind na la lii nga interprété droit bi. mën na indi coow gëmuñu ko. Hmm. dama ne loolu buñ ko fa tegee mën na indi hmm. loolu de laa wax. ci la xam nga xam nga une analyse. mais ñaari yàlla xam na ni. miinuma leen. Mm-hmm. amuma ñoom xaar ma yàlla. Mm-hmm. encore moins. président Macky Sall analyse. dama koy ñaan yàlla mu gudd fan. monsieur Ndiaye mu nam ci réew mu defu. Mm-hmm. mais du man may. monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye analyse sàmm sa wax wax day rafet. analyse si factuel nga koy teg. loolu nga ñu jàngal loolu la ñuy xam. loolu mooy journalisme. après li des y' a pas après affaire partisan yooyu amul solo daal. Euh, mayel boobu après nga ñëw vas waaw mais mais xam nga moom laa wax ne mm. tout dépend de de de kan mooy wax. Mm. parce que aussi dañu euh, jógee ci ay élections législatives yu catastrophique ah. catastrophique c'est-à-dire loolu fan lañ koy def fan lañ koy def dañ koy jël ci ay tiroir rek lan lañ ci jàng. catastrophique mais l'organisateur félicité. waaw mais non mais président félicité na ministre bi xëy na félicitation la woon. xam nga bi bi remerciement bi remaniement ministériel. bi am jëlee ko fi quoi. Mm. remaniement ministériel bi muy am fi ñëpp seen. bët dem mooy ministère de l' intérieur. bari woon na waaw tigi. loolu moo am solo c'est-à-dire que il faut pas euh, comme li Birima wax nii il faut pas personnaliser le débat il faut pas indi tour teg ñun tour intéressé wuñu ay ministres yu ñëw rek ay dem lañ ñun suñu réew moo ñu intéressé. nan la ñuy interpréter loolu. ak lan la ñuy def bu ñu amee benn situation catastrophique ñu nar a jublu ci beneen échéance. lan yan jéego la état di teg pour dalal xelu sénégalais bi moom réewam teg fa président teg fa gouvernement loolu moo am solo aujourd'hui le problème du ministre de l'organisation des élections par le ministère de l'intérieur pose un gros problème mm-hmm. te responsabilité président Macky Sall la mm-hmm. mu dalal sénégalais yi kii voté acteur politique bi ñëpp ñi nga xam ne nekk pour ñu xam que ni ay élection yu transparente la ñu am parce que on a eu beaucoup de problème te xam nga lan mooy problème Sénégal dañuy am problème mais c'est catastrophique li fi xew ci fi ñu toll mais lan lañ ci jàng dégg aujourd'hui bu ñu nee ministre euh, def nañu ma ministre ba fa nekkoon jël nañ ko yóbbu nañ ko fereen fu gën a baax d'ailleurs boo moytul Eh, eh. en tout cas jox ñu ko ministère bu ndaw. va hmm. falloir mooy que félicité naa la effectivement. félicitation bi c' est pas c' est pas des paroles c' est pas du ay du lettre c' est un acte posé c' est à dire que oh. en tout loolu am na. infrastructure dafa am. ñun dañu am benn affaire boo xam ne dañ ci toll. Hmm. toll bi moom mooy que dañu bëgg lu dalal xelu nit yi te dalal xelu nit yi moom hmm. mooy. ministre de l' mu jóge ci président de la République wala mu bañ ci jóge. élection yi ni ñu ko organisé bii passé waruñu ñu tegal beneen ministre bu bokk boo sës rek man je suis d'accord ak professeur. Euh, Aliou monsieur Aliou Ngouille Ndiaye kenn gënu koo jege président Macky Sall. il faut pas ngeen ngeen war leen affaire yi. nit bu ko jege sës rek. comme lundi ak mardi. donc li am solo ba am solo. Mm. moom mooy que aujourd'hui dañu toll foo xam ne ñun ñoo moom suñu réew. Mm-hmm. c'est-à-dire que quand quelqu'un comme Birima ñuy analyser composition gouvernement bi. Mm-hmm. c'est-à-dire que j'entends un Sénégalais qui parle mais qui parle de tout sauf de son sauf des projets dafa ndànk rek parce que il est en train de se focaliser si ñu am tour wala ñu am mbooloo c'est-à-dire que le gars il n'a aucune amul benn respect si kan moo mën a jël ministère bi def fa projet wala développer ko on est à 19 mois des élections présidentielles mais miracle dafa mën a am c'est-à-dire que li nga xam ne moom programme mooy fal euh, kii programme moom mooy fal président normalement. Oui. mais programme pour nga mën ko teg lu baax il faut nga teg ay nit yu xarañ. mais ci biir gouvernement bi am na ñoo xam ne seen domaine de compétence feneen la. ñu jël la indi la jox la santé. wala ñu jox la wala non pas santé hmm. am na benn ministre bu ñu euh, bu ñu jox euh, benn ministère boo xam ne il n'a rien à voir avec ça hmm. bokkul euh, du domaine de compétence am parce que peut-être que am na benn occupation benn électorat bu nekk ci kanam donc aujourd'hui il faut ñu xam benn affaire le hmm. Sénégalais qui regarde moom interprétation de la chose moom mooy que ministre bi ñu teg mu yor mbirum santé wala mu yor mbirum emploi qu'est-ce qu'il va faire pour l'emploi Sénégal man sama yoon nekku si boo amee un milliard de personnes d'abord c'est pas ce a mis comme qu'est-ce qu'il c'est clair si hmm. hmm. c'est réflexion qu'on doit ñëw ci yow si am na loo xam ne hmm. presque wax ju yàqu la xam nga lu tax ministère de l'intérieur c'est-à-dire que boo jëlee réew yëpp nag wax dëgg fa yàlla c'est-à-dire que mooy organiser élection maintenant ñi nga xam ne ñooñu lañ koy sant ñooy am fulla bu toll ni matal li ñu leen dénk. parce que du jëmmi sax ministre de l' parce que ay démembrement de l' état ñooy organisé sur le terrain. boo jëlee fu mel ni kii euh, fi nga xam ne élection yàqu woon na fa wala gën na faa yàqu. Mm-hmm. Mbacké bon sañ nga ne préfet bi mun nañu engager responsabilité parce que bu mm-hmm. fekkoon ni bulletin ya nga xamante ni nii moom la ñuy xaar te ñëwul waaw moom lu tax yëgluwul. xalifa juste non non lu tax mais laisse-le finir xam nga ba léegi dégguñu mm. fu préfet ci boppam yëgloo ni man maay organiser élection yi bulletin yi nga xam ne moo war a ñëw ma ko mm-hmm. waxu ko wanewul naqaram wanewul ci dara donc gis nga boo ko jëloon def jox ko keneen te ñi ko war a assumer à la base assumer wuñu ko mm-hmm. situation bi ñuy toll tey fa la ñuy tolluwaat ëllëg mm-hmm. du jëmmi ministre de l'intérieur d'ailleurs élection yi sax presque direction générale des élections moo ci organiser moo ci gis sax hmm. direction générale des élections moo tontu ci li ko opposition bi doon xarab donc nit ñi foog ma méngale ko ak li xew ci Kenya hmm. gis nga institution lu mu non si parce que institution lu mu dëgër dëgër dëgër lu mu foor fort fort nit ñi ko yor ñoo koy incarner boo jëlee institution yu gën a dëgër nga jox ko ay ñoo xam ne nii ñoom par parlo ak cuune moo leen fi moo lu leen neex la ñuy def te Kenya li tax ñu annulé mhm. moo yées foofu li xew fii moo moo gën a néew li xew fii laa bëgg mais c'est que li xew Sénégal Abdoulaye Cissé booy seet booy seet suñu charte réew mayul mayul benn juge mu annulé élection yi ci anam yi mu amee xam nga lu tax <laughs> parce que xam nga fan la ñuy annulé élection waroon nga fi ñuy analyser fi ñuy élection mooy quand la sincérité du vote est remise en question. waaw léegi xam nga dañoo wax li yoon wax. xam nga Charles may ma yegg la. non non annulation élection mënul am Sénégal dañoo créé ay formules toutes faites yoo xamante ni. genre il y des irrégularités. Hmm. mais qui ne sont pas de nature à entamer la sincérité. voilà tout à fait ay formules toutes faites xam nga ñu ko créé. observateurs yi. te gis nga ci Kenya. Euh. observateurs yi nga xam ne ñoo fa nekkoon yëpp. Hmm. dañoo tagg bàkk élection bi. donc loolu moo lay won ni. ñi nga xam ne ñoom nga dénk ñooy matal cër bi. loolu moom dëgg la matalu dara du baax dëgg la tigi tigi tigi exactement bon de toute manière de toute manière ñaari ñaari ponk waaw euh, birima birima rapidement voilà nga jël benn bi deux points moo ñu benn mot benn mot vas-y vas-y parce que xam nga man lan la responsabilité élection yi passé waaw il faut pas ñu yóbbu ko ci niveau préfet le problème des élections yi passé c'est c'est beaucoup plus profond que ça c'est en amont non non c'est beaucoup plus profond que ça il faut ñu wax loolu tamit. xalifa euh, xam nga politique da yàq. Hmm? da ngay def bi nga toogee ba tey waaw ni ñu koy defee dafa ñoo ñoo ñu koy defee du noonu kaas bu nduur man dama feeñ. mais bu moo yës politicien yi kaay ma wax <laughs> dama wax xam leen. xalifa oui de l'intérieur benn la. mënul nekk waaye organ bi man Macky Sall faral bi élection yi passé fii laa toog. ne depuis deux maa ngi xaar ministre de l'Intérieur bi démissionné wax nga ko wala wax na ko. wax nga ko kay. dama ci ànd pour mu jógee fi. Mhm. parce que la faute c' est pas parce que benn nit faute na. ligne bi yëpp toujours ku ñëwaat day faute ku ñëwaat day faute. non njort bi njort bi lu koy rafetal la ñuy wax ngeen wax xamaa wax na. njort engagé lu kii ku koy wax. non njort la engagé. on verra bien sa njort la engagé li ma les faits laa lay wax. on verra bien njort bu boo fekkee wala boo fekkee pas personne. may ma gën a c' est pas personne. oui na ma ne ministre boobu jël nañ ko fi. oui am nañ ministre bu bees. Hmm. président woote ne kaay ñu waxtaan xool nu ñuy defee élection yi. déjà fi erreur bi njëkk hmm. bu ñu ne kaay ñu waxtaan ñu xool nu ñuy defee. nga condition bi condition bi condition bi balaa maa ñëw mais nañ toog waxtaan. il faut waxtaan am mais mais mais mais damay changer vraiment me il me deux problèmes. premier problème xam nga fii lañ fi toog mu am ku ne. Hmm. qu'il appartient au conseil constitutionnel de décider à la place du peuple. oui à l'issue d'un référendum c'est la première fois man du ma ma juriste mm. mais ku ko wax dama lay weddi mm, mm. le ministre de la justice weddi naa ko kooku benn la affaire bi mooy que l'ONEL xam nga lan moo ko indi non dama ne que quand quelqu'un dit que appartient au conseil constitutionnel de dire que le, le président va faire sept ans et non cinq alors que c'est le c'est au peuple par voie référendaire j'ai un problème cest que tu puisses me dire j'ai un problème mhm. xam nga kooku benn la donc je c'est pour parler du professeur Ismaïla Madior Fall pour lequel je, suis sceptique et je l'assume mhm. beneen affaire boo xamante ne il va falloir qu'il me prouve que j'ai tort. Mhm. très bien benn affaire boo xamante c'est le ministère de l'intérieur. ça n'a rien a été nommé. donc historiquement. Mm -hmm. Abdou Diouf met le président Abdou Diouf met en place l'ONEL mais il a gagné hein il met l'ONEL mais le président Wade quand va mettre le ministère chargé du truc il avait gagné après 2007 mm. c'est-à-dire qu'il y a des situations yoo xamante ne dëkk bi moo lay won fu ñu jëm hmm. boo ko bëggee lakk nag saa waaye nga dem foo bëgg. très bien mais yokk yaa koy. alors avant balaa ñuy avancer. mooy. mën na mën na niru euh, prof am nga virgule après waaw après ma jox la ko. virgule comme Bouba di quoi. allez ñaar euh, ministre la justice comme ministre l'intérieur man li ma wax mooy. pas sur les hommes propres. dégg nga ah, li ma wax mooy ni ma leen xamee mën nañ cee rafet waaye dama ne. Mhm. ministère la justice du problème de Ismaïla Madior Fall. c'est ça ban problème la ñu réaliser la séparation dans la pratique. de hommes politiques entre l'exécutif et le judiciaire. Ali Nguy Ndiaye dama ne rafet naa njor ndax la ma xam ca moom ak li ma wax ci moom ba mm. ma ne mais le problème. faire en sorte que mhm. l'élection ne soit pas confiée au ministre de l'Intérieur mu am proximité entre le ministre de l'Intérieur et le chef de très bien très bien alors parlant de proximité loolu mooy beneen point bi nga xamante ni moom la ñuy mooy ne avant avant dernier point bi mën na niru waxu mbedd mais lu am solo la parce que luy jur euh, njort bu ñaaw la comme on parle de njort boobu ba tey mhm. dafa am ñu bari ñu wax ne ki nga xamante ni moom mooy ministre de la femme muy madame euh, Ndeye Saly Diop Dia ñu ne ku jege première dame la Euh, jabaru euh, ki jiite woon Senelec Pape Dieng te léegi nekk Sonacos ki nga xamante ni moom mooy euh, Mame Thierno Dieng di rakkam donc muy yoo xamante ne nii xëy na mu ngi mu ngi ñëwaat mu ngi ñëwaat te mën na parce que am na ministre bu fi bu fi taxawoon gërëm première daam demoon nañ ba benn moment ñu ne première étape moom mooy c'est elle qui fait qui défait les hommes donc loolu également si wàllu njort bi ñuy wax ba tey est-ce que du gën loolu noonu ñaaw njort yi. débat na nga woon def un débat. Euh, mais bi Birima Birima Birima. attends Birima laa woon dama cay jox. Euh, bon ah, écoute ça ça y est c'était pas content daal nga bàyyi. waaw ah, non nga xaar deuxième thème bi c'était pas content nga xaar deuxième thème bi naan la ndox. <laughs> mais xam nga euh, mbirum politique ak choix gouvernement tànn. dafa hmm. nekk lu sensible. Hmm. par exemple boo mënee ni ay organisme banque mondiale. waay boo fa amee rakk boo bokkal ndey wala parent de premier degré. Mm-hmm. yow rek yaa fa mu nekk mais moom bu bëggee dugg dañ koy tere ndax lu ñuy bañ mooy collision maanaam ñu boole seen i intérêt. Euh, loolu mënuñ ko dindi. Mm-hmm. d'un mais de l'autre côté mënoon ni aussi kii rek parce que jabaru diw la bu amee compétence yi kenn du ko jël. Mm-hmm. xam nga loolu moo tax mais yow miy diriger nga xam ne yaay jiite yow yaay def balance xool li nga xam ne. même bu fekkee ne sa compétence may na ko mais mën na teexel nga moytu ko. foofu la mbir yi nekk. foofu la mbir yi nekk. waaye nag kenn mënul rek ni ni kii parce que jawaru Pape Dieng la. mënul warul dugg ci gouvernement bi. mais dañu ne boo ko defee boo ko defee ndax mën nga am beneen solution boo xam ne bi boo ko defee xëy na mooy gën a rafet ci njort nga def ko moo gën. très bien. madame Dieng boobu ñu wax man xam naa ko ndax liggéey naa ak moom. Mm-hmm. bi mu nekkee SONES boobu maa nekkoon directeur de communication. Mm-hmm. mu yor affaire communication wax dëgg neex yàlla mën na liggéey ingénieur la jàng na li muy wax xam na ko donc wax dëgg neex yàlla war na mu a yor loolu. Mm-hmm. mais dafa am loo xam ne bu fekkee ne dem na dem na ba tàbbi ci rek xam nga mu ngi bërigo bërigo bërigo soow. boo ci toq ne benn toq direct rek mën naa yàq bërigo soow mi. kenn ko naan kenn dootu ko naan ci loolu foofu lañ ko seetee mais wax dëgg neex yàlla. gis nañu ba tay koo xam ne kii dafay nekk ministre jabaram nekk la le nga nekk président jël fa doon def ko lii Mitterrand def na ko keneen ak keneen. Mm. donc waaye dafa am loo xam ne nii wax dëgg neex yàlla. day day indi coow te mm. coow loolu jaru ko day indi mm. ay njort yu ñaaw te jaru ko. très bien mais Sénégal affaire question de ndóbin da si amoon quoi si genre yooyu. waaw waaw Khalifa dama la wax euh, dispositif de guerre pour victoire premier tour 2019. ça veut dire la fin justifie les moyens. mais on ne fait pas de la politique sans lieu <laughs> Machiavel. professeur <laughs> waaw euh, li doyen bi rek laay wax. c'est-à-dire dans le principe. Euh. mënoo ne rek euh, kii. parce que soxna koo xam ne jiite woon na la bi ñuy wax Senelec la. loolu mën na tax ma boddi ko du ko dugal ci nguur gi. loolu boo ko defee xalifa teg ko fen mm, parce que citoyen la. Mm-hmm. am na compétence pour exercer poste boobu. Mm-hmm. mais donte jabaru diw la woon loolu waroon nekk critère. Mm-hmm. mais beneen facteur bi ñuy intégré pour mettre yokk tuuti ndox ci bisaab bi rek. mooy que comme ñun dañu am histoire boo xam ne dafa xaw a particulière. mooy maanaam euh, nguur gi fi jóge li ñu leen daan tamee mooy euh, xaw a jaxasee euh, nguur gi famille bi mag ji rakk ji doom ji donc pour éviter lu xaw a demee noonu bu fekkee à égalité de compétence am na keneen koo xam ne mënoon a jël poste boobu man j'aurais préféré ñu jël poste boobu plutôt jox ko plutôt ko koy jox ki nga xam ne moom mooy madame Dieng dama ne à égalité de compétence mm-hmm. donte madame Dieng comme ni mu ko waxee ñi ko xam d'accord nañ ci am na compétence yi mm-hmm. mais ñun suñu histoire personnelle comme démb rek barki démb rek fi lañ nekkoon waa ji dafa jël réew mi def ne mooy bàyyi doom nangam nangam mm. kon buñ mënee mooy tëndeku loolu wax dëgg yàlla moom mooy li waaye comme ni mu ko waxee mm. dans l'absolu kenn mënta tere ne soxna si comme que jabaru diw woon waru la nekk ministre loolu kenn mënu ko teg fekk waaye lu ñu en fait man euh, par rapport ak point bi moi j'ai pas de problème si dame bi mu nekk ministre franchement mm. man man sama sama position dafa mu a clair pour man soo nekkee président de la république ñu fal la sa famille muy say doom muy say rakk muy say goro muy say jabar waru loo leen jël def leen ci ci ci poste yooyu man loolu mooy sama principe parce que hmm. Afrique moom laa lay wax ni danoo am benn feebar boo xam ne daf fi nekk yàgg fee nekk mooy jël jël jël famille yi dugal leen ci ci ci kii moo ñu fi daal 2012 mu indi fi tooxi duna bu rëy hmm. donc loolu jàngat la mais par contre c'est pas parce que. Euh, jabaru diw la nga ne doo ko mm. jox loolu. oui oui très bien. man démonstration à la à l'inverse rek laa la koy defalee. Mm. rapidement. Mm. est-ce que gis nga ku ñu nommé te mu wóor la ni neexul ki ànd ak président neexul première dame. waxuma ni mooy attention. oui non attention non non non damay leeral. damay mooy mooy nommé. waxuma ko sax waxuma ko ci cadre couple présidentiel bi nga xam ne moom la ñu am. mais en général laay wax. Ablaye ca dans le secret non non non waxuma en général. en général li sera pas ministre. non non non non attends waaw en général. ci président bu mu mën di Sénégal muy feneen sax. ma yeggale. mu feneen feneen. li gën. mooy. bu jabaru président àndul ci say mbir mu màndu ca. mais bu ko contrer. gis nga néegu sëy ak bu mu mënti doon. non bu ma. mais yéen non non non Ablaye yaa ngi comme boobu baalu yeggale waaw d'accord. waaw non non mais mais sama doom baa ngi xar xale. biir mooy li ma jege jege non non non non non non non non non non mais su su su àndul ak yow moom maandu ci say mbir gis nga benn yoon la ñu a gis première dame. su àndul ak yow joxe xalaat. jox exemple. c'est que waa mais concret gis nga benn yoon la ñu a gis. sox soxna njiitu réew am avis. contraire au chef d'État. muy Mohamed Bouhari bu yàggul. lu mu wax soxnaam dellul ca waaj. mais en principe non mais si si. mais non non mais parce que laisse-le finir même. c'est-à-dire peut-être bëgguloo comprendre li may wax. mais c'est ça la réalité. gis nga réalité bi mooy. Mhm. ak fu mu mën di doon gis nga dañuy dañu war a bàyyi affaire u Sénégal du Sénégal kese. adduna bi fépp noonu lay doxee. boo demee France.